Bombayı vandal astırdım bak. Ah, where is the shit? Fuck, fuck, fuck, fuck. I'm somewhere else. Sticky! elastic, elastic, elastic, elastic. Whoa. Ela uh, oh, voilà, elastic. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, eh, partage leen. ñoo Nyongi oleku, nyongi oleku, ngi yoo leeku. ñoo ngi yoo leeku. ah wow. maa de partage leen vidéo bi nu daa di fas ñëw toog waxtaan Moussa na booni ah waaw am na bu ko cent bu ko deux amatul de bu ko cinq cent bu ko mille francs bu ko cinq cent bu ko caaf ma jaay eh partage leen vidéo bi gaa yaa ngi yolleeku <laughs> non sama mbokk ñuuwiti ak ñoo daasere nag lu ngeen di wut échappatoire échappatoire c'est mal me connaître yéen kay kaay leen riigu nu échappé wu kaay leen riigu nu échappé wu billahi wallahi yéen yoon yéen ku làqatu yéen maa ngi bëgg ba damaa yeewu dëkk te yéen ñi ngeen di defee bës mel ni kuy làqatu yàgg naa leen ne du ma imaam du ma walliw wootewu ma tarixa yorewuma caabi àjjana te je suis le plus maudit des jaamu kan yàgg naa leen ko wax nee naa leen maa gën a bon si gars maa si gën a tuuti te je suis un ancien ñuuxitilisé qui s'est réveillé man maa ngi si yoonu baax dem naa bay commencé jubook sama bopp di waxtaan ak sama bopp ba yenn yi su nekkoon maa ngi koy dindi naan gi deñ na tux gee si des ñaanal leen ma gay looloo si am solo en attendant ngeen andil ma tontu yi léegi nee ngeen da ngeen di yooleeku noonu bàyyi baan ba ma leen suma ma leen nammee bàyyi yàlla naa torox su ma leen nammee wàcc su ma leen wàccee rek ngeen xam ne que yéen bàyyi faale seen seenu santaay yéen a jël leen ma dem récupérer sama lu tàngali ñëw teg nu daal di fas yéene waxtaan comme nu ngi koy defee saa su ne mais les gars vous êtes magnifique les gars nee ngeen du ngeen bàyyi quoi comme daal di eh ana bëgg saaliw ak ak ak ak ak ak kii saa ndaxi liyaati saa ndaxi liyaati Ouais, la femme, la femme la yeux, aux yeux de l'œil. La femme o yeux de l'œil. Nee na ñoo ngi partagé doo doo ak seen i légende xaaral ma ñëw cokotaan leen maa ngi ñëw cokotaan seen maam cokotaan seen maamaati maam xaaral ma dem récupérer samay tàng yi gars yi vous êtes formidable je vous aime quoi xaaral ma ñëw. waa non gars am ngeen bës nag comme gars yi da am lu nu génnee noonu ma ñëw. am nan buntu nii génn ngeen si a leen ma lem leen ba ngeen saf-sàpp ngeen naan ma ay boon yéen bay faal boon ma jaay bu ko téeméer am na bu taw am na wax yan ma wax leen ko yan nee naa leen bopp koñ bi maa ko doon tàngal wala yéen su may wax du ngeen déglu c'est ça le problème avec les ñuuxit ils viennent là tu les mets ngay expliquer ak di leen wax dara di wax ñuy wax au lieu nu déglu ils sont en train de se branler donc man cinq mois yi may wax yëpp ay saaga ngeen fi andit comme vous ne m'avez pas écouté vous m'avez pas écouté Moi, tax nag waa Sénégal ngàcce ngaalaam nee naa leen yéen waa Sénégal yéen ba nga demee ba di dugal ni que mooy loolu noonu da ngeen si waloon dugal ni que def na ngir yàmba vidéo bi nak lan moko ko rendre funny. nu ma ko defee nu ma ko defee loolu mo funny. xamna action bi nu ko defee mais c'était pas pour moi c'est ça que vous n'avez pas compris Boy, bi la doon protéger boy bi sama rak la sama rak la donc je me dois de le protéger Boy, bi dafa ñëw moo tax maa ko kay wax susu maa ngi après nga ñëw andine ma fi yenn problème yo xam moy mooy dafa tàmm su may live muy ñëw li romb sama ginnaaw di kii nit ñi yàgg maa wax ni ko xoolal protéger sa privacité wu raq protéger ay kii mu tomb ko tàmm ko tàmm ko ba turam génn sa ba ñu am ñu xam sa xam turam un jour mu xëy andil ma problème Wah yow da ngay live di wax nit ñi sama tur yow ak ki nangam ma ko comme ça soit la dernière fois suma live soo gisee ma tok di wax sama affaire soo ma santé maay live ñëwal nga romb nga dox nga dox dem sa yoon mota jour bobu na mu fekk ma ci ginaaw mu ñew teul rek commencé ma ngi nank nopi ki après bama ko yoni wé nak message yoni na ko vidéo bee coupure yop néna il s'en fout fofu nak la gëna ma maa nak fofu nak la gëna ma a dé golé ma man ma tok dama doon jaay yamba dama doon nan sangar ñu la wut duguna kasso ngir jaayum yàmba maa leen ko wax voilà ba ma nekkee si ñuuxit bi naa leen faal mbàqee ki nangam di naan sàngara di jaayum yàmba boobu j'étais un bon baay faal ba ma demee ba comprendre xam som bopp commencé kii maa ngi jubóog som bopp xanaa mille fois dix mille fois nit ñi duñu dégg quoi maa ngi jubook somboob dem naa ba naan gi bàyyi naa ko ngeen xam ni ko tux gee ma dese léegi tux gi manqué ñaanal leen ma si lool te ngeen góorgóorlu andil ma les tontu xam ngeen tontu yi ak diw day tux yàmba c'est deux choses différemment opposées tontu yi ak diw day tux yàmba c'est différemment opposé waaw kooku noon di tux yàmba yan question la leen laaj ba di xaar tontu ah ay question si islam la ñu laaj ah tuxkatu yàmba buy wax si islam bu leen di poser question si islam ah kooku de jar naa dimbali lan la leen laaj noonu ah daf no laaj ni ka 33 femmes ñett yu bokku ndey ak bay ak benn demi sœur lu ci islam wax loolu day tax nu saga ko top ko langal ko ko boobu ba léegi man yeah, eh. sa wa gay vous n'êtes pas encore sorti de vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge xola ni la len di def ya a nga gis ni la len je vais vous sucer jusqu'à la dernière goutte je vais vous essorer jusqu'à la dernière goutte je ne vous laisse aucun iota xola ya a nga gis Nila la len di def diko def muy saf diko wacce muy saf yenn say ma duggal baram xol ndax pire la hmm, gis nga ni la len di def yéen kay andi len ma tontu yi eh, eh. Hmm. <laughs> yal na yéen pour yéen rëcc ngeen si oh, oh. waaw léegi kaa leen def benn affaire Baye Fall comme que ngeen a jàpp kaañ da ngeen a partagé noonu ba ne ngeen da ngeen a jàpp tuxkatu boon def affaire nu dox Sénégal Baye Fall bu nu gis nuy tux bon du Baye Fall kaay leen nu seppi ko ah balaa ngeen di am lu ngeen di tëb bay daw bay yuux léegi kaay leen nu def loolu man damay bëgg woo sama gaa yi nu jël sen bi ak seen kay dox si dëkk bi yéen ñii di ma seetaanee Sénégal daw leen ngeen sëpp seen kër yi wala ngeen xool dans les moindres recoins ku fa Pastef fu naa la barki ngeen ndorti ko neko ko léegi laa nouvelle loi Baye Fall yi nee nan bo yamba ma jaay <laughs> yéen morom ngeen di wut morom ngeen di wut bay baal dee goo de mais ah, ma may leen bu gën a neex ba may tux bon daanuma mandi ça vous donne quoi ba may tux bon ba may tux ay bon daanuma mandi dama doon pasteefu quoi en fait ba may pasteefu nii daanuma mandi dama doon kii nii rek dama doon moom la naan pasteefu defaraat nii xam nga kontur xam nga defar bëti nii style xam nga defar kii waaw ma doon maquillage waaw ba may maquillage nag daanu ma mandi moo nekkoon sama sëriñ man j'ai le plus valeureux des des des maara à l'époque des ma j'ai eu le plus valeureux sama maara dafa doon toog di def xandang waaw di ñëw di nu jaay ngulde ñun tamit ñuy def sapin di génn si mbedd bi di jaay gaay ngulde yee ba tey sama maara bi nekkatu ko sax mais ba léegi moo ngi jaay ngulde ah bon j'ai j'ai j'ai j'ai des séquelles des mauvaises habitudes yéen a ko tey les mauvaises habitudes que vous m'avez inclus là. Il y a des séquelles qui restent, mais je suis en train de si je suis en train de maa ngi comprendre tey si suba rek laa si yeewuwaat ndeysaan ba ngeen partagé vidéo yi ba pare yenn am di jàmm yi du maa woo di ma ñaanal xoolal di ma conseil di wax ndeysaan sama yaram daw ma xam ni donc il y a toujours des gens qui m'aiment donc c'est ça qui me pousse à changer mais yéen qu'est-ce qui vous pousse à amener les réponses góorgóorlu leen góorgóorlu leen yéen dee naa leen hein. su ngeen ma naree xas man ba ma ràpp wala ngeen xas ma man ba ma rus wala ngeen xas ma man ba ma am lu ma naqari ah Serigne Touba si boppam mooy deqil boppam ñëw xoolal di maaj nag di ma dukkatal man ma leen ko wax. billahi wala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ànd ak moom di tiit loo munti mel Baay Faal yàlla dafa ne eh jéggalu leen ma ma baal leen déggalu leen jéem leen a defaru ma ubbil leen yoon doxal benn ma daw jël si si yéen yéen du ma tax doon yahut du ngeen ma tax a doon yéeféer du ma tax a bàyyi sama yoon ay doomaraam ngeen billaay wallaay yàgg naa leen ne sama bon bon sax nit su bonee walu sax jéem a jël diine bi defar ko pour jéem a wane ni que dafa baax yow yaa wala jël sa bopp jéem a defaru topp diine bi pour jéem a baax man nag si loolu laay dox ne yàgg musuma baax yàgg naa ne du ma toog naan je suis le mais léegi comprendre maa ngi defaru damay topp diine bi defaru mais du jël bi manipuler parce que damay tour wala da na wala nangam non na wala légui mom moy wi wala kafa so dem non non waxna ko fi ba néna len accepter porter ses couilles man je suis un homme qui porte mes couilles je ne vais pas vous fuir de ma leen daw ya na torox je ne vais pas vous fuir ba ma jaay di Anda ak wetchit ak bonus bobu yena lek benefit bi munuma defar sama bop munuma dara j'avais rien compris fal mbake lay woyoo tok fofu non ay roi lepp la don def neena naa leen sax jay naa ko booboo gën a dee pëndëx jaay ko dof lu bok instant gi nak suñu ñëwee ba tok nak di wax andi len fa yalla yen ngeen ne ay nitu yalla ngeen yaakaaro naa ni que di ngeen ma ci wuyu kat di ñëw fa yof yalla ngeen di dox naan da ngeen di dag di mo no len dag daggagoo leen daggagoo leen de bala am nga kañ ngeen di dag su ngeen daggee fen yi ngeen di xamni ni que nag ngeen dag mais pour l'instant ni vous nous motivez plus man la lu ngeen gëna def ça m'ouvre les yeux et ça me montre que je suis dans une pente si je fais pas attention mais bàyyi yéen ñun ñun suñu tollee ni ba toll si niveau ba suñu domi fa lañ jëm suñu domi comme xana da nga leen di wër ci naaj bi il a, Mark Zuckerberg, il a donné la chance à tout le monde de s'exprimer. Si ce n'était que Nunkewati, cette presse de merde au Sénégal là, Doma Karam nous nous presse Doma Karam Doulkati, Yakamtounou, Boboleg a la question. Hein, eh, Sénégal, Aoma Dakar Actu, Aki Doma ya Yanyop la nous tous ces presse de branleurs de merde. Hein, eh, question, je partage ko. Question, Yo nous Question, viral. donc yéen yéen a ngi fi ñun di seetaan doomu xaraam yee ngi fi ñun di seetaan ñooñu ma leen di wax ni ñoo ngi fi ak ñun di seetaan donc yéen dès le départ vous êtes en train d'attendre nu ngi koy waxati euh, sama défaite quoi fu may fakastaloo fu may daanoo yéen na yées man man lu may wax de ku ko nar a dindi si yonent gi ku ko nar a dindi si alquran ku ko nar a dindi si yàlla sunu borom bàyyi faal mën naa la xolal loo dem jëla fa laa koy teg de man mënoo leen si man tous lu ma leen wax démb mooy sama waxu tey mën ngeen maa saaga coolul saaga leen sama ndey coolul dafa leen ma lu leen neex coolul wax leen ma lu leen neex coolul mais sallallahu alayhi wa sallam ak alquranu karim tarafa ay ni wa ay ni ku ko fa yóbbu ma toj sa cottu ndey loolu kay amul ma dem te ñëw damay ruux sa ndey ruux sa baay ruux sa baay baay baay sa maamaatu maamaatu maam wëndeelu ñëw taxaw di la loolu amul ma demte te ñëw loolu man maa def choix boobu man maa def sama choix ku ma si nar a ku ma si dara wax lu ma naqari tamit ma ruuxaale sa ndey baale ko loolu moom moo am léegi nag wax gi moom mooy les réponses durent trop les réponses durent trop wax naa leen ko dès le départ ba may posé samay question nii di topp di ma sànni xeer di ma xeer di xaar pour xool fungeen ngeen may daanelee wala pour kii profité daan ne non Serigne Touba waa Serigne tuubaa kii nangam ah kii nangam ma ne leen duul la ma lépp lu ma daal dogalu yàlla yàlla laa gëm ak yonenteem alquraanu karim point yàllaa ma moom su weesoo yàlla kenn moomu ma sama ndey ak sama baay samay samay kilifa leen moomunu ma sax mais samay kilifa leen respecté naa leen jox naa leen ay waajur jox naa leen cëru waajur su weesoo loolu noonu Baye Fall ana ana réponse yi kaay leen saliyaati saliyaati la femme la femme branleuse la stripteaseuse des Mbàkke Mbàkke la moom mooy stripteaseuse des Mbàkke Mbàkke saliyaati saaliyaat yi baay mbàkke mbàkke yi booy si ba solo te si striptease nag si lëndëm boobu moom day day fecc si lëndëm bi nu koy làmbaatu parce que gars yi bëgguñu koo xool ñoom nenuy làmb di daj rek nenuy làmb di daj te bëgguñu seen bët yi daje yii si lëndëm bi lañ koy teg muy muy ñappaaxu rek nu koy làmb cagala cagala la petite pute la la garce de merde nee na noonu daa tourné noonu mook mook bëgg saalu màcckatu fra bi bëgg Saliou nga xam ne que daa cogg ba ñëw fii ni taxawaalu New York di cogg nee nga woo oh, yaayoo man maa la des yéen di ngeen ñàkk fayda seen man seen rakk laa seen moroomu doom wala seen moroomu rakk te maa leen di ñuus boobu ba léegi sama ginnaaw ngeen topp di wax ñàkk fayda A leen ben njeriñ mënoo len defal dëkk bi mënoo len no conseil mënoo len no wax dëgg mënoo no no won yalla mënoo len no won diine mënoo len won tous Yen a ñun fi ci Facebook bi di collé ki di di partager ay vidéo ki di fenn di sos ak di ki, di taxaw di avec ça ki tay lay ruux seen ciot nday ye ñëpp un par un ngeen naan may ki nokku len gaaw dem andi sama réponse la len wax ngeen may laaj boni boni témen ma jaay tawuma jaay 2000 ma jaay te dama ko doon tuxté du mandi kenn mënu si sarap ndem maa la ko wax kenn mënu si daara waaw ah, waaw comme que doo leen déglu leen neex ngeen di dégg man tamit fu ma neex laa koy teg di ngeen ma tontu de da ngeen foogoon ni que su ngeen génnee damay daw ba nee naa leen man ba ma yàqee bay Fall xam nga nee nañ kuy xeexal yonente gi da ngay ñàkk jom man sama combat beeg yonente gi nii lii may def nii dama see ànd ak ñàkk jom wër dama sé and ak ñak man sama personne bo xolal sama ru sama der sama sutura sama ëlëk sama dem sama lepp la jël tek ko ci loxo yonenté gek yalla sum xolal dama leen ko jox adiya donc les petites marmailles que vous faites là man pour man c'est une part de asaka wala du adiya de mon jihad dégo leen ma de ça c'est mon jihad à moi leen tous Tous ngeen si mënu lu tok toog di siisu màtti seen bakkan di tëb di perrier réponse yi ñu koy xaar ba légui vous n'avez pas vous ne l'aurez jamais et vous allez me voir là je vais m'asseoir et vous le gérer maa leen ko wax kay wow yen kay Baye Fall yan hein? yan nee naa vous avez tapé dans l'os du cochon am nga lu l'os du cochon hein? Hein? man mourid bu ma xas ba ma rous ma xamni ko que Baye comme yalla amul yonent amul mourid mourid ba murid ini, khas xas la nga rus ah Baye Fall nee naa la kaa leen nu daal di def loi bu bees képp ku nu jàppati muy tux su jeex si deuk bi waaw waaw su yàggee de yamba bi jeex ci deuk bi kep ku nu jappati ngay tukh yamba ci deuk bi do bay du lay futi maanaam ni ka bàyyi faali tuxkatu boon yi léegi ñooy dàq ci gaay man su nekkoon sax xam nga ibaadu yi xam nga ak nu ngi koy wax sama gars yi waa waa waa axlu sut na xam nga ñoo xam ne que sut na la ñuy dund kii ñu am diine sax ñooy ñëw wax ma dara sax ma rus quoi ma daan ne ay waay gàcce mais ñu ma roode ay gars yoo xam ne yéen a ma yàq yéen a ma roode ñoo xam ne jaay naa leen boon ñaata at eh jox leen at yow xaalisu boon ñaata at xaalisu drogue ñaata at jox leen ni boon yàmbaaki kuk ngeen fuun ba naaw yéen tey yéen a ñëw naan ma daal da ngeen di am lu ngeen di expliquer on se connaît man su nekkoon quelque chose quelqu'un qui ne me connaît pas ma ne ma mais nous dans nous ngeen bëgg ma xas man kii fen ngeen de fen ngeen de du bii de du bii laa leen wax du bii bii bii man Camara da ngeen maa war ba war laa laake nee naa ngeen problème de lay lay la laa yéen ba Ye ye ye ye ye ye ye Ah. Sama guy. Nena barakian. Oba sepede gili gili. Ah, gili gili gili gili. Ah, ada reposi. Ada reposi. Reposi dugal ko am de. Billahi. Reposi. Reposi dugal ko am de. Like nee naa leen de man du ma leen reculer dara da ngeen bëgg a kookoolu si kaw nit ñi rek nee ngeen yaa yoo noonu da ngeen ay wut buntu noonu pour retourner retourner dara ngeen dul retourner yàgg naa leen ko wax olli mii ma tingoom leen toj seen cottu ndey te léegi nag tim baa ngi dëgër billahi sama soldier yi gën nañ taxaw yéen tey ngeen di gën am laalaake nuy wax nu naan dañuy retourner situation situation du leen retourner tous on va vous sucer jusqu'à la dernière goutte là, vous allez nous répondre par force Lui du ma man combat bi su neexee pas ma lakk su ma si je suis bi xolal nan ma caw ñaari fukki téeméeri mais man combat ma combat bi moi soxal réponse mon soxal te di ma point barre point barre affaire de yaa kay toog foofu rek di ut ku di kii murit murit murit ñuuxit ñuuxit mooy xas ancien ñuuxit ñuuxit mooy xas ancien ñuuxit eh, eh les ñuuxit taxe un ancien ñuuxit de tuxkatu boon tu crois que ça je m'en balle je m'en balle les couilles laa leen tegal je m'en balle je m'en tape indéfiniment ana sama pot bi sax ma wol man fii suba bagay bëggee tux ay boon su ma ñoree ba moo ngi ni gis nga pharmacie laay dem jëli ko chaque jour ma def naa sax live bi fii avant ba wone ko ba wonam fi pat gars yi doon naa maa kii mën na leen bàyyi faal su ma bëggee tuxay bon fii fii dafa légal si pharmacie lañ koy jaayee ak boutique yi damay dem pharmacie ñëw taw dellu ci pat yaa ngi gis nga ku mën a liir lii flaawaru xaw ma lan gis nga gis nga luñ la bind moo ngi nii moo gis nga de pot bi nii lay mel voilà li wax naa leen multitude fois même su dee sax maa ngi koy def baaxul maa ngi siy góorgóorlu di bàyyi mais ngaa ci ngaalaam ba ma ñëwee fii lay soog a tux yàmba ba may nekk Sénégal daanu ma tux yàmba dama doon boonu comme ñoom ni ko murid yi di waxee da ngay poonu wala nga boonu dama doon boonu di jaay boon di bon lu di jaay drogue waaw je l'ai toujours dit je me suis jamais caché sur ça Baye boonu nag mooy lan fooñi skënk tànjaa ndëpp rons ay boon yoo xam ne doo comprendre bay faal nga wal ko tux avec quatre vingt degré sa bopp ak sóoraale polis sóoraale affaire yi boole ko kolol taba cigarette excellence juróomi dërëm bul la jëlee MTWA goudron ko nicotine ko ba bul comprendre bay faal nga tux ko ba pare sa bopp bi euh, naaj bi di la dóor nga àgg sa gaale ndox coupé lekk bu jaar yoon doo ko lekk ah ta yoy duñ doon bonu mais bama yek yegsee fi lay la fi lay sogo a bon da ngay dug nu nela bi bii da lay xiifloo bii da lay nelawloo bi da lay relaxloo bii da lay xam nga bi day tax do ya do sentir douleur bi day tax xam nga so amé insomnie wala nga stress mu calmer la da ngay dugg ni nu tek la ni tegal la ko par ki par feu ki ni nangam do ga ki fi la ko ya bi lay wala gaa nag baaxul maa ngi koy wax chaque jour nee naa la ba ma commencé ba dem ma xam ne que duñ may fen ma commencé gis yonente mu may leera di ma andi si njabootam laa commencé jubook som bopp naan bi teeni déreetu golo bi daay si laa ko commencé daw ma kontaan si man mu des benn bi nag may jaayante ñoo ngi si parce que ne wax naa leen wax dama yor tout tànk tout tànk boo xam ne léegi moo ngi màgg bay wax comme seku gis nga mat ba am nu may waxee tout tànk bee ma raw day laajte rek day wax rek te jomb naa tamit nag mu ñëw jàkko papa lay def nii papa kii jaar naa si toon naa si léegi du ma siy génnee laay lijjanti nii de tout tànk bi yenn saa ma def appel vidéo sos yenn saa su ma mukkee damay sànni el wala kii nag mu ne ma papa lay def ma rus sànni kii ni tourné soxna si xool ba dewa donc faut que je change loolu c'est pas ay affaire yu ñuy wax quoi yéen comprendre si loolu man laa leen di woo lii ni baaxee ma lii nii yonente gi baaxe ma si loolu laa leen di woo lu tax ngeen di bañ kaa nu soppeeku kaa leen nu bàyyi fen kaa leen nu bàyyi def lu bon kaa leen nu bàyyi naan beeg tux bi kaa leen nu bàyyi duul yéen ngeen ne du ngeen ko baay man ngeen bëgg rek continuer di ma di ma kii quoi ah man du leen ba de man nag du leen ba man dama leen di yóbbaale je ne vous laisse pas du ma leen ba dama leen di yóbbaale kaa leen nu defaru wax naa ko ba sonn nee naa leen alimentation au Sénégal yi tey jii nii suñ ko tëjoon benn chrétien du jooy alimentation Sénégal yi suñ ko tëjoon su amee chrétien yi jooy laa soo koy compter sa baaraam loxo yi dina des ay baaraam mais alimentation Sénégal yi suñ ko tëjoon bàyyi faa yëpp xaru sa va faire une grève tu vas voir des gens qui vont ay Mouhamed la ñuy tudd ay Xaadim ay Ibrahima wala ay naka sa xam comprendre comme boog man lu ngeen di wax noonu. encore une énième de fois ma njëkk ñëw toog ne bay eh, eh am amna sax ñoo xam ñuy soga dabi vous n'avez rien compris ñun top mom de le départ ñu ci bëri comprendre leen sama histoire xam nañ d'où je viens que quel était mon mon mon passage quoi yaa ngi comprendre ay non tokatu bon la way ki ni naan né na l'en nak len moy wax gi moy pour le grand respect nak que je vous à tous mes téléspectateur wala tout samay am di jam wala képp ko xamné ni que combat bi ñor na la kenn si yeen musu ko gis si dégg la rek du ngeen ko gis pourquoi parce que c'est un respect te pourtant mën naa kaa def moo ngeeg man mën naa toog jaane kap mm, def ñàkk tekkin comme ñu ko ñenn ñi di defee takk samay joint wala teg samay affaire jaakaarloo gaay def affaire da xamadi te su boobaa kenn du déglu kenn du ma faale su defee day mel non yeah y a un temps pour tout jamais ngeen ne ko ma ñëw tok di dem lu non da ngeen koy dégg rek parce que lu tax man ba du ko gis un respect un respect c'est pas par lan c'est pas par peur c'est pas par lan mais c'est juste un respect point voilà en attendant on attend d'où où sont les les réponses Seigne bi fa le 50 mètres Nous, nous fait demain. moo moo gaynde bi moo xam nga waaw fuur bi nu mu fa demee man nee naa leen lu ma gën a na jaaxal mooy lépp lu ma gën a jaaxal si wax gi mooy si digga distance su tukki bi nit ku nu yóbbu mu juppo man tukki bi foofu la lépp si tukki bi la kiraama yi pa xewee su ngeen seetloo islam Serigne Touba lu ko jiitu bëriwul kiraama lépp si jaamu yàlla la respecte yàlla ak ragal noonu laa ko mën a waxee ragal yàlla waa jaamu ko ba mu jeex mais waxu kiraama yi waxu luxusi waxu bokkaale yi lépp fan la commencé si diggante moo buñ koy jël di ko yóbbu dakaar dakaar ak léegi dugal ko si gaal bi yóbbu ko Gabon ak Gabon àndaale ko at ko et après ça maintenant c'est de là maintenant kiraama yi commencé lépp si te bu ñu koy jàpp yóbbu ko diir bu muy def gabon ñëwaat foofu la gars yi créé kii kiira mais bu muy jàng ba muy fer ba muy liggéey bay bay bay bay wane boppam bay wane turam bay samp tànkam bay def amul kiraama lépp ab ragal yàlla la ak respecté yàlla ab bëgg yàlla mais à partir nag ba tubaab bi dugal si loxoom affaire yi commencé dem muy jaxasoo kii foofu noonu la histoire bi tourné lënd lënd yi bëri ñu commencé laa dugal ay riñ ay naaw ay julli si ay tëjoo gaynde ay tëjoo kii ay tëjoo ay affaire moo tax ma ne leen gaañ loolu dafa yomb c'est trop facile c'est trop facile lépp si si voyage sëriñ man nag lu ma si jaaxal mooy Serigne Touba moom dem na ba si kii bi nu nekk yow soo jullee si gé si gaal bi dig nu tooñ te soo julluwul waxtu bi roow la nga tooñ sa 5 minutes ma jël la minutes te soo jullulee ah té so jull té so jullulé ba waxtu bi raw la di nga togn sa borom ah sa way jël der gi man fofu la sama sama sama problème commencé parce que kula mënul may juromi waxtu muy juromi minute pour nga mëna julli wala nga mëna défar mu na la soko fi défé problème am wala ki nangam ndax koku so sandé sa der ndax dina la xaar mi première question parce que mënu la may nga julli juróomi minute mais mom nga sandi mu taxaw xaar la ndax soy wacc ci ndox bi ndax dina la jappalé nga wacc ma loolu parce que mënu la jappalé dans aucun cas donc ça va être des gens de ni dem croiser les bras di la seetaan di xol yow comment tu vas te débrouiller légui à partir de là ñom lu ne Serigne Touba est-ce que matna 50 kg matuloon 50 kg ko nit ku tout la won mais xalat nu nu mu tuuti rek non non légui nan la wala démé ndax ba mi wacc ci gal gi dafa tëb. dafa plongeon duñ ko lonkol buum duñ ko jox échelle wala nu mu demee léegi ba muy julli gaa moo ngi flotté moo ngi julli jën yi génne nan moo ngi yëkkati suuf léegi tubaab bi duñ koo xaar wala ñoom duñ doon daw di dem si jaada bi tamit di daw di ko topp parce que man loolu ku la mënul tara fa ay na ba ay na ba nga may la juróomi waxtu nga julli sa borom mënumaa gëm mu may la dara donc man reste boobu léegi nag ba Seri, nou ka vati, bon moun mou joul li, si digante kom nou ko gen ah, dek nasi beno ankonone, si digante euh, Ginebisa a ou komak fan, pouf lou kon joul li. Bon mam se rafal moun, wala so pale ko ap malaka, gadou maket ou touba, nyon fek kon si joul li bi mousol moun, di kon prezante manet ou touba, te sore goul, moun kotol ou se Gineb. Mou walko maket bi, bayi wad kofo, nyibi wate mounon nou kon yobu. te ñoom ñoo noonu ba ñu koy yóbbu maam Seera Fall daa dawoon ba si tefes bi jël njoñ yi si milaafa yi dugal si ndox bi bato bi taxaw parce que bëgguloon Serigne Touba dem. que Serigne Touba moom mu jëyee yëg si kaw panton bi daal ne ah kooku di xam naa Ibra la tourné na ni boo xool daal ko ne waa Ibra Ibra waaw bàyyil ma dem maa ngi dem te ñëw ay kii nangam wax. je comprends rien léegi même personne boobu moom moo dem ba àgg Gabon ñu wàccee ko man fu ñu ko wàccee man man nu may nettali. man fu nu wàccee Serigne Touba ba mu ne jëpp Gabon du lu may netali fofu dama waxuma la sax dem de dama fa dund fu nu ko wàccee fu mu tek dama fa dund c'était mon air de jeu dama fa sangu dama fa féey naaw c'était mon air de jeu c'était sama place iri fa ay gel ba sonu bon bu ngeen may sonalé tay di ni fofu la ko commencé jàngee tux donc ngeen xamni ni que misaal foofu boobu leen Air France bord de mer ni armée de terre nek pas palais bi maison de gouverneur fofu faut ñu Serigne Touba zéro mètre maison de gouverneur armée de terre moy armée légion française bi fu nu basé affaire qui à cette époque fofu lañ ko nous Nous ne ma non gars Serigne Touba da fa gis jinne xaw ma dëmm bu fa taxoon mu dem doomu jinne xaw ma lan mu dem lijjanteeg moom kabru bii kabru baa barku bi xaw ma lan barku kabru kii xaw ma lan jinne bi daa di ñëw pa waajuru jinne bi ñëw gis ko expliqué ko daal ko ne man mën naa laa dellu nga daal di jugee nga dellu fu nga jugee si diggante xef ak kippi nga dellu fu nga jugee si diggante xef ak sëñ bi ne noo coolul mu nekk fa di taxawaalu comme ni sept ans ah sept mois ba ay nawleem ay naataangoom namm ko seerafaal ay ñu fa nekk ñëpp bind dem ñaani njekk pro ñu ko ci gouverneur gouverneur yónnee waat encore gaal ñëw fekk ko fu mu nekk récupérer ko ne ko cuppat andi ko mais ana jinne bi si diggante bi ah ana jinne bi si diggante bi nee naa la c'est problème man loolu moo ma jaa c'est trop amazing dans si dekk départ bi ba si fin bi amul foo xam ne ni que mën naa collaborer mën naa dem wala sa figure wala sa marche ensemble amul eh léegi nag comme nu ma koy waxee rek gars yi ñoom nee neen oh yaayoo ñoom du ñu tontu tontu yi parce que waa yaayoo du ñuy wut fu ñuy échappé woo nee naa leen du ngeen fi échappé woo de. laa ilaha illallah su ngeen yaakaaree échappé fii laa leen wax lu ma leen wax laa wax bàyyi leen fii man lu ngeen ma waxal bëgg naa man sama personne du dara man sama personne du tous déggoo ma de man maa njëkk toog. wax leen maay lan comme que déggoo leen ko woon foofu nag da ngeen di xaar ba fenn fu ngeen di kii di dem di c'est problème mooy lu ma leen wax clair na suñuy tontu moom la ñuy xaar suñuy tontu la ñuy xaar xanaa déggoo leen du ma walliw xanaa déggoo leen du ma imaam xanaa déggoo leen ni ko wooteewu ma woo kaay nu dem àjjana xanaa déggoo leen ni ko yorewu ma caabi àjjana kenn xanaa déggoo leen ni que man instant bii nii maak yee na bokkoon yem te maa leen gënoon doomaraame mais instant gii nii ndeysaan Muhammadu Rasulillah da dugg sama xol mo ngi may defar ma ngi jubóog sama bop ah ça veut pas dire que je suis parfait ma ngi jubóo yu bëri wàññi nako mais ba leg amna lu dess wax la nit day deg mais leg man su lo la len di wo kay len nu dem bax ji ngeen jang fen xam nga dul man ma jang bàyyi nan bek tukh bi nu jaa ja and nu ñëpp jaamu yalla lepp si deug ak deug ngeen bàyyi fen bàyyi tuhali bàyyi taatu xale yi jigeen ñi ngeen momul xam nga bàyyi xam nga seen seen jikko terroriste bu ngeen yor yooyu noonu yëpp ñun ñëpp nu ànd ku si nekk parce que ku nekk a ses défauts j'ai mes bu vous avez vos bu leen nag défaut bu gën a bon ngeen yor mooy lan yéen da ngeen di tooñ yéen da ngeen mën a fen di sàcc di tooñ donc man si loolu laa leen woo kaay leen ni heure defaru jot na heure baax jot na heure yërëm suñuy waajur jot na heure nekk nit jot na toll si dox ko weesu ko bako dara bonu si fi tay am imam wala ay borom bax yu ñuy jité wala lu nekk si leneen vous dox tamit sen mais c'est comme ça la ñuy lu c'est la vie man c'est yé mais en attendant fenu nous entendre lu ngeen si xam góorgóorlu len tamit fen yi juge fi comme nu ngeen pas xam nga comme bi bi si man sama jëmm la waxuma si ñëpp de si sama jëmm nonu ngeen wala góorgóorloo fen yi daa di jug ko wax tay damay duggal nak tay damay tan ñuma neex ma duggal comme que affaire bi affaire de mafia la da ngeen di sotante man tamit damay ut nu ma sotle coot tàndaam tànn ku ma neex duggal allo musa wa malaysia lay ziar yang si jamu Malaysia bu wér wér. ah ma ngi dundu ba légui de gaay bëgg nañ ma dé mais amagunu gor góorgóorloo gu. mais maa ci live bi wala. ya ngi ci dé en direct. ooy gars yi yéen a may déglu jox leen ma nopp bu baax bi man la maa xadi <laughs> dafa am message bu ndaw rek bu ma bëggoon jaarale pour murid yi ngeen ëbb seen noppi bu baax te déglu ma te bañ ma dégloo xol nag te dégloo ma bu baax a baax ak xel dama leen di laajte yéen tey Moussa mu ngeen jël naan dafay tox yàmba day tox yàmba yéen xanaa xamoo leen ni tox yàmba ci maam Cheikh Fall la njëkkee benn deuxièmement xanaa xamoo leen ni. tox yàmbaa bi mu bu dee day tox yàmbaa tox yàmbaa moo gën bokkaale yàlla yéen ay bokkaalekatu yàlla ngeen yéen murit yi yéen ñëpp a a wax ba mu des yéen di leen jiite ci boppam ñoo dàq bokkaale ku mel ni Muntaxa ndax moom fii la taxaw ne carrément yow mal xiyaam lu mu fa am lu dul lu ko Serigne Touba joxul bëggul bokkaale dafa mun bokka euh, réer dafa mun a weesu loolu. maa hadi yaakaar naa loolu commande sax commande sax walu koo xalaat. ku merci commande sax warta génne loolu ci gémbi na waxtuma laa koo xam ne nee nga yow kilifa diine nga. nga ubbi sa gémmiñ wax wax bokkaale bu rëy boobu noonu esclave yi la topp kontaan di yuuxu di reetaan xanaa xamoo leen ni tox yàmbaa boo ci deewee suñu borom mun na laa jéggal waaye bokkaale boo ci deewee safara nga jëm doonal sax doomu Serigne Touba maa nga doon doomu yonent bi boo deewee ci bokkaale safara nga jëm ok loolu dama bëgg mu leer seen bopp Serigne Modou Kara dafa jiite mbooloo di naan sàngara di tox yàmbaa taxaw dëggal ko Moussa Camara jiit teewul mbooloo Moussa Camara li muy def ni tey di yéen nit ñi ci bokkaale seen sëriñ yooyu noonu la waroon mais seen sëriñ yi amuñu benn njëriñ ci Sénégal lu dul lekk ay chômeur milliardaire jànguñu jonguñu amuñu nday benn xam-xam toog di leen nax di lekk seen alal waaw may leen ñu jaamu Moussa Camara jaamu rek lay am parce que yàlla moo nekk di ko wax loo seen tarixa bi nga xam ne ci ay fen lañ ko sos seen tarixa bi lépp ay fen la lépp man mi di wax ak yéen murid laa woo naa xam ngeen loolu bu baax a baax mais damay sant yàlla ba ma ci yàlla génnee parce que tarixa boo xam ne la du la jàngal dara dara dara dara dara bokkaale shirk rek te bokkaale mooy bàkkaar bi yàlla gën a bañ mooy bàkkaar boo xamante ne boo ci deewee tàbbi safara ak koo mënti doon loo mënti doon loo mënti am nekk ci àdduna di julli di woor di def lépp lu baax bu dee amoo tawxiit boo deewee safara nga jëm ok di tox yàmbaa ba pare am tawxiit nangoo kennal sa boroom xam valeur yàlla moo gën fuuf nga maa moo gën fuuf nga ne yow man damay ah. profité du ma ne sax gars yi ah non nekk si def ko xam lu si ne bàyyi ko dara nekku si xam nga tey du ma ne euh, dama koy def parce que kii dama ko doon def parce que dama see tolloo nekkoon xale nekk si loo xam ne ni que amaana je n'avais pas compris mais léegi maa ngi comprendre lu bëri maa ngi defaru xam nga ko nu ma koy waxee di jubóog sama bopp yu bëri maa koy eh. wàññi am na nag yoo xam ne xam nga doo tëb nii rek mu daal di génn si yow wala nga daal di ko bàyyi mais man tay di ni man sama bop avec ma propre personne kuma xam dem mhm. wala man sama xolé sama bop damay content damay xam ni que parce que keroog ma ngi la am ñu bay nam tay da nga lèr tay ya ngi ki mais ñom sen bop wala ne xam ni que parce que amna na yu ma yeah. rek lool rek doyna sante yalla voilà yow li ma bàyyi. yow li nga am non rek yow li nga am non rek. yow chance bi nga am non rek ba suñu borom ubbi sa xel nga yewu ci yenn affaire yu bari yi Modou Kara tay ji bu ko amone day daw ba fat ndax ñoom ñooñu nga xam ne dañoo jiite ay mbooloo dañoo réer réer réer réer a ba man dama leen di yërëm mhm. dama leen di yërëm seen xalif bu gën a mag Muntaxa moo gën a réer kuy réer moom nga xam ne dafa toog di dëggal bay Faal yi seen ñàkk julli mhm. Muntaxa moo toog ne am na ñoo xam ne suñu borom da leen joxub jagle mhm. Baay Faal yi nañ leen bàyyi ak seen jagle lan mooy jagle Baay Faal yi mooy ñàkk julli ñàkk woor moom moo toog moom moo toog di cautionné loolu moom Muntaxa boo leen ma weddee vidéo baa ngi fi eh, eh, eh, musiba weesuwul loolu musiba mënta weesu loolu te yonent bi dafa ne diggante nit ki ak muy nekk yéeféer moy mu baye julli kon baye faali ay yéeféer lañu ñu parce que duñ julli ngeen murit yi am ngeen lu leen doy baye leen Moussa Moussa même buy tox yamba mom la concerne Moussa wul mbolo Moussa amul ñuko yaakaar tey ak ok benn doomu adama rek la buy góorgóorlu ci jaamu yalla di gindi nit ñi di yee nit ñi mm. yeen seen sëriñ ci dañoo jiital ay troupeau mouton yo xamne ils sont aveugles di leen nax di leen lo seen borom te xamoo leen ko di leen dig aljana te dara xamuñu ko amuñu xam-xam amuñu tawhid bokale kessa moy seen métier guddeeg bëccëg suba ngon dañuy bokale yoonu murid mm-hmm. ci lool non ngeen wara wax mm-hmm. tax ko budé tax yambaré ci yoonu murid la fekk baax ñeppay tax bon dañuy tax bon ba def tap bay faari bo démé seen cant yi xolal ci bop koñ ma ngay toll xetu boni dila dal bal perdu yi di la mais yeen wax leen ci lool ñi ñe ut échappatoire bon bi ngay wax bon légui du dara Sénégal c'est wax ma bon bi ngay kii ñoom ñoo koy kii di ñuy sóob de gaa yee ngi si cristal bi pëndëxu farine bi. gaay yi ñuy ah. fóon nga naa ma ki jamu. xol leen bu bàyyi nan dem neena la mbele mbele ciow ñogi 365 jours daggala yi jeexagul ñoom ñooy wax de. c'est que xam nga problème bi la la musa gaay yow da leen yéem da leen jaaxal parce que da leen poser question yo xam ba yoonu mouride dee yoonu mouride ba tey kenn musul leen ko poser te pourtant yow tu attendais des réponses mais fi que amuñu ay réponses yu ñu la fournir moo tax ñuy jéem a recherche ay xaste yi murit yi ñoo mel noonu mm-hmm. ñoom amuñu argument lu dul xaste mm-hmm. ak sosalaate jikko góor jigéen ci boppam la ñu yore ah. xaste sosalaate yow nii nga mel yow caga nga yow góor jigéen nga yow lii nga indi leen argument ki da leen woo ci débat xaalallaahu xaala rasul yàlla nee na yonent nee na ah. kaay ngeen tont ko si loolu waaw te kaay ngeen dimbali ma kaay lu baax ay eh, waay kaay leen baax Moussa da leen di woo kaay leen ñu baax kaay leen ah voilà kaay ñu jaamu yàlla Moussa ci jaamu yàlla la leen di woo ci tawxiid li nga xamante ne seen sëriñ ñoo ko waroon def mais ñoom loolu arrangé wu leen loolu arrangé ñoom noo leen gën a dofee rek moo leen arrangé noo leen gën a réeree loolu moo leen arrangé ñuy lekk seen poche amuluñ leen benn njëriñ dañ leen di tardel àdduna tardel leen àllaaxira parce que li ngeen nekk nii boo bokkaale yàlla bi ku ci dee dem safara loolu dama leen ko wax na leer doonal doomu yonent bi doonal doomu Serigne Touba bokkaalekat bu deewee safara la jëm loolu yàlla moo ko wax amul demal maa ngi ñëw ok kon wuy len Moussa ci mbax gum len di wo bo gën xaste tok ya mbax nan sàngaraak lolu mom la concerné lolu vie privé wam la même bu dee da koy def mom la concerné moom jiitawul mbolo ba pare taxaw jël micro ne carrément mbolo bi nan len sàngara bu gën nanul fi di gën nan solé kara moko fi wax kara doomu mam maré ma sey serigne modou kara jital ay millions de personnes top ci ginaaw mo taxaw wax lolu mhm. sëñ muntaha diko dégg kenen ak kenen diko dégg kenn jugul ngang ci parce que ñoom loolu lay seen mission dañuy transférer ay messages yoo xam ne c'est subliminal pour réeral nit ñi. yeewu leen ngeen wuy Moussa ci mbaax gi mu leen di woo loolu laa amul lu ma leen di wax. man de fii ngeen may fekk gaay man de fii lan. Moussa mooy loolu maa lay bàyyi nga yeggali. rafet na rafet na yow dundal. jaajëf dundal. sama gaay ki ki doon wax ni sànq Sacha la Sacha Kia moo doon wax sànq Sacha. non eh, eh, eh, Sacha système Je eh ne may wax saa waa di voilà Abdou Mbaye eh Abdou coupez go dar, tu vas avoir de quoi couper am coupé le bu baax may wax profiter de la vidéo je ndax ba faut apprendre à écouter avec les oreilles qu'avec avec son anus quand on écoute avec les oreilles, on utilise un cerveau. Mais quand on écoute avec un anus, on, on utilise un cœur. Donc quand tu utilises ton cerveau, utilise ton oreille quand tu écoutes. neen waxuma la ni que vidéo bi ba may xale dama ba may tux ba def lu bon lu ndaw laa amaguma sens de responsabilité xamaguma affaire yi affaire yi dugg si man ba kii ba ma ba je comprends les sens de responsabilité Je comprends l'essence de la vie. Je comprends plus ce qui est en de moi maa ngi jubóog sama bopp léegi nag am na yoo xam ne doo tëp tëp tëp rek mu dañ bu gën gënoon jafe te ma yaakaaroon ni ko du ma ko bàyyi te moom laa tëb bàyyi ko mooy naan bi léegi na mu des sama nag ngëf bu la sonal maa ngi siy jaayante te nu ma ko doon tuxe non bàyyi 72 heures ren doon wooye sama gaale demal noor fu waar nga wàcc nga laajte ana gaale 72 heures ñu lay andi ba sama na la galé Moussa Gabone mo ngi nii 72 heures daanul fay daanul fay fo romb ngi boy fo romb mo ngi tak dem naa ba man nek tok na xamna ni que sa wàññi sama consommation Tout parce que de toute façon j'ai intérêt à le faire su non, loolu noonu lu ko. j'ai intérêt à le faire su non, loolu noonu lu ko donc j'ai trop de phases yo xamna ni que ça me botte le cul faut que j'arrête cela sama m'a a ngi mag, elle pose des questions te su ma continuer ni tamit lu la ko wala deeñ waajalal mom tamit pour mu moment a defaru Dina ko retourné. de a ko Bon, ba mu jeex je ne suis pas bête de la dernière pluie wala je ne suis pas né de la dernière pluie man lu leen jaaxal nee naa leen jaaxaluma man lu jaaxal mooy comment on m'a menti tout ce temps te surtout ta yu may nekk sa di gën a ta temps yu may woowee soixante douze heures sama Ta temps non, da daanu ma manqué magal. duma rate gamu duma rate xolal kas rajab duma rate da adiya bu ñew damay joxe cotiser damay cotiser bay faali ma di dajale bobu nonu fa lay sant lay wuyoo de goma de ha esa gi ni nak man du leen nee naa leen su ngeen fi naré genn su ngeen fi naré échec su ngeen fi naré évadé ma xamni que Mouhamed dara al du liggéeyalul dara diiné du ngeen dem fenn fenn du ngeen fa dem kay lu dem defaru ji kaay nous nu fen bàyyi sàcc nan, nan doul, duul ñun on va tous aller ensemble je ne vous laisse pas d'un yota, d'un yota, sauter crier côtier bla bla, me vous allez me trouver là je vous l'ai promis je vous l'ai promis ça dès le départ ma yéen ba pikk ak peel mais wax ça non mais man gars yi man moom ken ray ma Saliya xaw ma Saliya la femme la femme looy la stripteaseuse mbàkke mbàkke la man kooku rek man moo ma faj nee na woo daa kontaan noonu ak partage yi man de damaa toog dama leen di ree rek moom ak moom ak Macky Sall fu ko mën a dugal dugal ko fa waaw waaw waxoon naa leen ko waaw waaw kii nii waaw jërëjëf Serigne Touba kii yéen a boni jërëjëf so yéen yéen daanu fas nee naa leen you me fucked up guys and you got me in your am going to be in your ass all that time. I'm going to be there, man. I'm going to fuck that shit. Don't worry about it. I'm you guys. Don't play that. Yeah. We are together, man. Mm. tuxkatu yamba bi dee leen ko langal six mois sept mois léegi seen gàcce la de sept mois yéen nag benn tuxkatu yamba su nu nekkoon gang ngeen am problème doomaraam sept mois benn ndaw buy defaru benn ancien ñuuxit

Wow, il a fait la prison à cause du yàmb Bon, lépp dañ ko Dolé. waloon doole waaw yàmbaa bi ba kaso bu ma si tëdd ak loolu man ma toog di wax sama bopp de. laay laa ak maa xamoon ni yii rek laa si doon daw moo taxit nee naa leen kuy ñëw affaire yi teelal nga ñëw wax lu mu fa demee teg su dul loolu noonu gars yi yii la ñuy wut dégg nga la wut profito pour xool ku ñuy calamité wala ku ñuy jéem a mais man nag ça ne marche pas man ma leen que je ne suis pas parfait je n'étais pas bon je ne suis pas le meilleur. waaw gënu ma fee baax gënu ma fee jub waaye daal wax dëgg fa yàlla diine islam bi diine bu ma ñor la bu ma saf parce que saa baay daf maa tudd ba may tudd ma li xaamal fii noddal ma fi jox ma turgu gu sell muy El Hadj njël yokk suñu naan kaliimu la jox ma kamara muy mandinko móori nekk etni wu bañkat nit yu dëggu nu wal koo dox waaw comme d'habitude nu wal koo dox yaa ngi comprendre donc nag man si loolu lay dox newu ma ni ko suñu ma nekkoon mooy yoon wala su lu ma iyon, pas yoon parce que xamna naa ne que su lu ma ko ñàkk wax deug mo taxoon ma nek si sa bay daan na ma wax deug nak tay nak mang koy commencer mang koy gis wala, mais man mako fi romb dem top ñeneen nu may fen ma ko su lu ma ne legi nak heure wante deug jotna ci si la len wax kay len de ah wa ba pare nga ñew nu signé nak suñu pare nak comme que man dama len di wo ci lu bax dama bëgg nu signé lan la ni signé dañuy signé loi ba loi la ni signé mom moy loi bo xamna ni ko legi ah Baye Fall bu nu gis nuy tuxati muy tux yàmbaa si biir dëkk bi dina la taxaw daal di ne Moussa Camara duñ ko fay tongole woon ngir tux yàmbaa comme yow doo Baye Fall Baye Fall buy tux yàmbaa dekkatul Baye Fall parce que Baye Fall yi nee nañ yàmbaa mooy la ñoo ngi doon di ko yuuxu te man ñoom ñoo ma jofoon nu mu waxati ñoo ma ñoo ma roodeel ñoo ma roodeel si yàmbaa bi léegi ñoom ñoo ngi noonu nee na duñ koy yuuxu parce que ne ah comme léegi xam ngeen ni koy ah ah comme su ngeen bëggee su ngeen bëggee ngeen xam yàlla un côté su ngeen demee ngeen xam lu yàlla wax su ngeen arrangé wul du ngeen ko xam su leen neexee ngeen ñëw jéem a kii ah eh eh eh eh eh bàyyi faal kaay leen nu dem jaamu yàlla kaay leen nu dem bàyyi jikko yu bon yi kaay leen nu góorgóorlu si sunu bopp ah eh eh di ngeen ma tontu de 33 maam yi fu ngeen ko jëlee eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh Ué, ai, oi. Tá mẹ Me malen bagi pir wai. Ouais. Association des New Hitulai. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir de sitôt, je vous le jure. Hé eh, hey, eh. hé. Allez me nino sur mon comme ça. Me charmer l'entouré. kan ko souvent da nga koy bàyyi di dem rek xaale ma woo leen tuñi su ma ko toppatooyee nan lay mel snap mu def snap snap spécial magal coucou snap snap way c'est bon eh eh eh eh eh i sawa na yooyu woo gaay nu waxtaan kaa nu waxtaan ci soutna na waaw kaa nu defaru li suñ ko amoon ta boy ñu ñuy waxtaanal ni di nu defaral nii xam nga ni ko duñ fi nekk di naané ki di tuxi bonde ñoo ngi woon ay nit yu ay mais ndaysan do noo ne woon ni ko def la lu gën ki après ngeen joxe addiya ngeen ñew dem ah on se disait que boy y a pas de problème hein nen dàq ji ci xalé yu jigéen ñi naan ki profiter après di dinañ dabé hein. comme ko ñogi ngi joxe di dinañ dem àjjana loolu len nu wax on a rien compris on s'est laissé aller là

pour nous waxal wa dëkk bi non non mais fu ñuy kaañoowee wa dëkk bi wala fu ñuy ñëwee kii wala pervertir les jeunes duul fen nettali Sénégal ngi ci kanam waaw moto tax góore Sénégal rek góore dooma xaram yi waaw waaw boobu ba léegi ni ñaa ngi kaas suñu contrat suñu affaire suñu ak ak yelleef diw diw wax ku nekk ngi joy pour gaay ñëw wax lu nit ñi di wax c'est tout un problème ñom ñu ñëw di ñu expliquer ay histoire mbam quoi léegi nag ah donc ñoom boobu léegi ñoo ngi fekk yéen de gars yi ñu bëri di seetaan nekkate xolo ñoo yor City du may raccrocher rek nu partager nekkate ñoom ñëpp ay noonu yonent gi leen ay noonu islam la ñoo ngi xool man fu ma daanoo pour nu daal di jéem a dem yëkkati ay fenkat daal di jël ay nit dugal leen si biir non Baye Fall dama rus dama rus foogoon naa ni fu nu wootee ni yàlla ak yonent gi moom wax leen alquran yéen da ngeen di taxaw xeex mo taxit là je comprends pourquoi kérok ba Charlie Hebdo amé Macky Sall dem wax gi lèr na kilifa diiné yoy ño dem né ko dama nga séti gaay lolo tax Macky dem voilà ça se montre parce que yeen fu ñu woowee yonente gi fu ñuy waxee si yonente gi du ngeen genn xéx ak wala du ngeen genn taxaw day metti sen xol day laal sen xol da kay ciokotan ba da ngeen di wut lu ngeen di fentek ci biir Baye Fall yalla ak yonente gi da la ñuy wax fo ba karim ngeen nek fi di fitasu di tepp di fen di turne di yuuxu di daw di sos lépp si waxum yàlla ak yonent lu leen si naqari lan moo leen si naqari wax leen nu ko nu ñëw toog waxtaanee muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lan moo leen si naqari ñu ñëw waxtaane alquranu karim lan moo leen si naqari tey jii nii su ngeen yan da ngeen a bon parce que ma ngeen lu ngeen ma bëgg a teg sax ba ma nekk yéeféer yéen ngeen dox ba romb jotaayu yéeféer yu toog di waxtaanee Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te yéen taxawoo yéen gën a yées yéeféer yooyu yéen a leen gën a yées yéen a leen gën a yées yéen su lu leen dafa yomb kaay leen nu waxtaan lan la nu waaw islam wax lan la nu yàlla digal point barre waxuñu leen lan la leen diw ak diw diw diw on s'en fout nañ commencé si bopp bi lu lu base bi wax lu tax mu metti leen xanaa pare goo leen baax xanaa pare goo leen defaru ah pare leen de pareegoo leen defaru ñuy wax ngeen naanu ay waxu daanu sareet Serigne Touba point ay kii nee naa leen da di duul képp ku ko wax daa baakaar bépp doomu xaraam bu toog bu ne Serigne Touba point Serigne Touba yàlla la wala kii ni nangam c'est un dafa baak kooku waxuma la sa kooku moo raw bokkaale kat kooku ab yahut la parce que Serigne Touba moom si boppam waaye yow daa dof téeméeri junni yoon bay taxaw di naan moom boppam point dafa dof temps yi maa ngi romb gis benn publication benn gars mu naan non danoo wala sax bàyyi di naan Serigne Touba dafa liggéey ba am si ab yeelum xaadimu rasul doon ko war a bàyyi di wax dunoo wala ne yàlla moom moo sàkku xaw ma que Serigne Touba doon ab mën a mel ñii ñu ñii ku nu mais ñii kan leen yeb ndeyam mais léegi comme que affaire yi noonu la doxee mais léegi yéen tamit da ngeen war nangu ni que yàlla moo sàkku man mii nii kamara ma ñëw jàppale leen pour ñu ñëpp nu mën a dem teguwaat si yoonu diine ak farata yalla sunu Borom. nangulen bobu tamit parce que tout a un point tout commence à quelque part nous ngal nango di que Serigne Touba Dundu 1300 ans après mu après Mouhamed fekkeewu jamonoontewul sax rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jamonoontewulul sax ak ay sëtam ak ay lan ak nangam ñëw ba fii yéen ngeen accepté lool si seen xel ni que moom am na maqaama daraja ba nga xam ni ko moom moo jël yonente gi def seen i affaire comme man tamit wal ngeen maa accepté man à l'an deux mille vingt yàlla defara ma tamit daraja ak maqaama ma ñëw toog mën leen a ñëw nu jàppalante nu ñëpp dem fa yàlla liggéeyal islam yow léegi nangoo leen ko noonu pourquoi ngeen bañ ko pourquoi ngeen bëgg koo bañ wax leen yéen seen bos mooy dagan mais bosu gars yi ñoom du dagan ah mooy loolu de nee naa leen day doy waar de day doy waar de laa leen wax day doy waar de waaw waaw nee naa leen Ousmane Sow musuma lucide musuma lolou yag na len ko wax tamit saa yu may live tat lay def fa yalla ñew tok jakarlo ak yeen neena le xam nga la moy problème ma lu len jaaxal ak man luma len di wax ça va faire 45 neena len fi su ngeen fi naré genn meuna len bu ay ngeen manam ni ke yeen man ngeen di wax de man neena le man dama am ay archives sax yo xamne ay caisse Ricles caisse Ricles yi ba len ko fi tégalé demb demb da ngeen bañ dégo len ma de caisse

man maa leen njëkk a génn taxaw ne leen man damaa bon déggoo leen ma de man maa leen njëkk ne bëgg naa lépp lu ngeen ma teg man damaa bon mais xolal du ma mus a yàq islam bi du ma mus a yàq diine bi te fas yéene naa defaru kaa leen ñu dem defaru ji xanaa loolu jaaxel na wax kaa leen ñu dem defaru nañ commencé bàyyi fen yi nañ leeral fen yi commencé ok 33 femmes nu mu fa deme si loolu laa commencé ki yéen de mais nee ngeen déggoo leen du ngeen ko dégg da ngeen di kii vous allez chercher à vous faufiler su ngeen fi génnee. ma xam ni que vous êtes fort su ngeen fi génne ma xam ni ka vous êtes fort laa leen wax fii du ngeen fi génne d'un yotaa d'un iota du ngeen ko fi bouger waaw waaw d'un iota du ngeen ko fi bouger xam nga gars xam nga gars yi du ñuy ñuy dugg si cant ya wala dem toog si ay jàng ñu leen di fen di leen wax ay kii nangam ñuy mbëkk muré naan daan du ñuy daanu leer man le fait comme ma wala tal sama téléphone rek ma ñoo jàkkaar yow nee naa rasulillahi sallallahu alayhi Wasallam suma su ko xex waxuma la tat deke mais sapin lapin lay def ci bay non mono mono dem di xexal yonent gi ba paré nga lu ci da ngay fess dell ak leer da ngay akol ah, tat ngay def waaw tat lay def dégguma la degré yi ni may tollu ni bu len musa ñaan sax lol noni ngeen di xalat ma tux ko ba ma ñëw jàkkaarloog yéen dolli ko rage bi may andal sumay wax non kenn du ma attan jour boobu noonu laay yàq live bi rajaxe ko yenn mag yi sax mere ma doom parce que je non du ma déglu kenn du ma jat lu may considéré rek lu may def nii duma ko kii donc jàppale ni que aal yi nii may aaloog nii rek daaj yi nii moo ma jàppale sa ba ma may ma may mën a fàtte daaju juin parce que moo tax may yàqamte trois cent soixante cinq jours may daajoo ma ñëwee di daajoo nii daf may wàññi lu ma waloon tux ñëw di daajoo di génn non maa ngi ak yéen déggoo lu ma leen wax

amenez nous nos réponses laa lay tegal ni lo sama gars ya da ngeen di fontu da ngeen di fontu laa lay tegal ni da ngeen di fontu yéen bu len ko ñaan sax togal fi naan ay daat yooyu man nee naa damay tak naturellement suma jakarlo wala ñew taxawé en tant que xex katu yonenté gi waaw suma ñew ba taxaw sapé la lapee lay def fay yalla baay dégo moo tax ku la yonenté gi ma ruux da nga nan bala ngay ki ma déclencher ye motax su ngeen nit ñi di wax di saga mo meuna supporter sax nu saga sama nday wala nu ki nanga ma romb ko re parce que essay non tat la def fa yalla legui nak bis bu nga ñaané ba bama ngeufru taxi ça va être la fin jour bobu non bu dalen di que ça c'est un autre truc c'est un autre truc la lay tégal ni billahi wallahi c'est un autre truc yan kay boy lu len rek la len wax lu len ci tontu yi waaw neena len dal wax gi bala moo gëna neex yeen nga daal di juk voter loi ni ko kep ku tuxoti yamba du Baye Fall boobaa ma xam ko lu ngeen di wax ñor na len mais tant que fekke si woo leen ma ci lool lu ngeen di wax dara ñoru len ci da ngeen bëgg def bruit bi rek ut fu ngeen di ko waye fi du ngeen fi yollee ko de fi fi du ngeen fi yollee ko di ngeen ko tontu nu lijeenti ko allons y nañ dem nek ji nit nañ dem jaamu yàlla waaye dem jaamu yalla nañ dem suñu wajur nañ dem top alquran waaw billaahi nan dem looloo gën si yéen eh, at at nee na at tijaani rek nee na Moussa comme góor jigéen ak a bëri wax da ngaa bëgg ma walla góor jigéen xaaral ma walla góor jigéen xaara xaara fan laa ko génnee woon vidéo boobu sax ma walla góor jigéen yi fu ñuy génnee ma walla góor jigéen nu muy mel ak fu mu leen di génnee doomaram boo jàpp boy ngeen di japp si daara bi boy ngeen di japp si daara bi di len di len di len diw kaarite am na ma yónnee woon bi ma bi ma am am jaani demul mi ngi fii ak man jaani demul fenn man maa nekk nit koo xam ne maa bëggul nit ñi ma daw waaye li ma gis naan sa yaxen jaarameeg yooyu moo tax ma koy denc lii pour liggéey la yoru ma ko ngir nappe wala dara liggéey la su ma paree dama koy denc dañuy bàyyi wax ju ñaaw man li ma mel suñu borom moom ko def kenn mënu ci dara xam-xam bi ma yàlla def mm. xam-xam bi ma yàlla may may na ma ko ba noppi kenn mënu ci dara li ma yor ci ay jaay ëpp na fukk maa ko dul maa ko loolu ay ja ëpp na fukk kon nañu bàyyi di wax wax du ñaaw man maa koy denc parce que pour liggéey yóbbu ma ko ngeen napp ba di koy nit ñi demal. góor jigéen nga bëgg a gis xoolal. loolu du ma ko def dama ci liggéey soo paree dem denc ko yaa ngi dégg kon nañu bàyyi di wax wax du ñaaw sëñ Assane Ndiaye mi dem naag nangam nangam loolu nañ ko bàyyi jaani mi ngi nii ak man yaa ngi dégg su ma douze boo duggee am naa ci neuf ak bii muy dix yaa ngi dégg kon nañu bàyyi di wax wax du ñaaw lu amul njëriñ daa bëgg a gis góor jigéen boo ngi noonu nee naa seen biir sëriñ yi ah waaw sëriñ su ndaw si seen sëriñ su ndaw si nii ñii nii seen doom seen sëriñ si toog seen doom yi ñoom ñooy ñëw peuple ji Akon siti Akon City bu ñuy taxawal ñii ñoo koy peuple si waaw waaw ah ay ay ay ay kilifa yu toog xees pecc rosal faar dagg faar ñëw toog jël addiye yi siyaar yi maa leen ko wax de yéen kay bu leen ma tontu bu leen jug de da leen ut échappatoire da leen ut échappatoire di ngeen ma fi fekk ma ne pegg toog di leen xaar fii laay toog ne pegg di ko defanteeg yéen nuy wax nu naan ay kii yéen bàyyi faal yéen da ngeen a deex quoi a ma jaay laa leen wax su mag kaali yéen daan ma ay kii bàyyi faal may pa da doon dem màgga lan la yóbbul sëri ci eh du tu feftu yàmbaala yóbbul gars yi sërite ba nu jàpp ko eh yéen kay dee daa leen def la nouvelle loi Baye Fall bu nu jàmb bi tux boon duñ koy futti wat ko dakul nekkatul Baye Fall point barre léegi yàmbaa bi jeex si dëkk bi man maa ngi góorgóorlu Baye wax dëgg fa yàlla tux naa sama palmarès Baye booy yu musul ñam yambaa rek moom laa siy xalaat coolul mais ñun xam nen ñam nen yàmbaa horizon bi fu ne fu nekk tuxee nen fa yàmbaa léegi dem nen ba xam ni ko mooy loolu kon nu ma ko waxee sallallahu alaihi wasallam mo ngi fess ci xol yi fess ci deun yi fess si jëm yi ñoo ngi defaru ñoo ngi jàll bagage léegi kay kay leen nu dem man duma leen ba je vous amène avec moi dama yex ci fëgg buntu bi yalla neema wa man la andil na lay gan billahi billahi andil na lay gan on va y aller di ngeen jaamu de alquran ak sutna point sa nday ak sa bay point wey ci lol la leen di wo nak ku mu nakari nga de Ah, waaw damay rus sax waaw nan bi la njëkk bàyyi sa gaunt gol man fogo naa duma ma mus nan. bàyyi la Fogo naa duma ko mus a Waye bama ma ko génne bamu mu lu ko sama bop sax may tok di xol man nan naan wuy parce que su ma ba tok ba xol lu toll El Hadj xam nga kalimu la surtout sama tut tànk bi moom moo may kii quoi mais kii papa lay def nii papa lii lan la dafay may dina ay xaaral kii fii lay màgg léegi mu romb maag butéel ma bëgg koo nangu si loxo mu tëma ma ñëw lijjanti sam bopp nan laay def teg butéel bi fële lijjanti sam bopp moo gën voilà mu kii romb maag butéel nga bëgg ko këf mu naan la bàyyi maa moom bi oui waaw waaw waaw maa ngi góorgóorlu nag day eh, ma ñaanal lek dégg nga moo nga ngeen may um nak yéen da eh, ngeen yakalat man mouride yak ñu ni leg wax ngeen ko fu nek ni ba um bal o li ngeen ñaanal mu ne waaw kay moom kii ñi ñaanam ngeen bëgg ma um quoi dina ko di yéen dina leen defar defaru dinañ defaru de il voulez me gaspiller comme ça non méchant que vous êtes comme ça là eh, yéen ya, nga mo la sandi ñaan ma ngi di dimbali di leen defar ni di leen ñew di leen jema yé di wax ki eh yu ndaw yi kii nii ngeen wal maa ñaane ne kat waaw saa waa ji xam nga yow mooy loolu eh, góorgóorlu nga bàyyi kii eh, ma wax ni ngeen bëgg may di yéen yéen a ñàkk fay da eh et eh, vous croyez que ça va fonctionner yéen xanaa vous ne savez pas avec qui vous avez affaire non mais come on sama gars yi am leen jom nag eh am leen jom nag sama gars yi come on yéen avec tout l'effort que j'essaie de faire c'est comme ça que vous me payez c'est ça votre récompense quoi je me tue, je m'expose à essayer de mettre quelque chose dans votre tête, à essayer de vous faire savoir que Mohamed Rasulullah, c'est le sauveur, il est bon, il est gentil, Dieu est doux, il fait tout, il nous aide, il est là pour nous, ses enfants. Allons-y, on va se faire pardonner, on va, on va travailler pour l'islam. Et vous vous fâchez, c'est comme ça que vous me payez, quoi. Hein? Yenu ah waaw waaw defaru na dindil bi ak et on y va dans le bon sens personne n'est parfait nous doxal

yéen googu kwa ah yéen ngi non kwa yéen ngi non de yàlla jàppale jappale kwa ngi non c'est comme ça qu'on va construire le pays hein c'est comme ça qu'on va construire le pays soxorante iñan ay kii man yalla gi bu mu nexé ba ma demee ba gis lu nek ci yalla dama ñëw di partager ak yeen di leen wo ka leen nu dem fa yalla bu gëna gaaw bi nak la leen wax billaahi man may waxu ki c'est-à-dire ngeen toog leen foofu en attendant comme lu ma waxee rek man moom comme que dama yeb Boy Bass Boy Bass xaw ma maag moom seen une longue histoire léegi moo tax daal léegi man je vais faire petit défi un petit challenge moom booy boy Basqua ñu xool kan mooy matal bosom léegi boy Bas man je te défie ma bàyyi catégoriquement tux boor bi nga bàyyi sàcc bàyyil jël lu la lu nga moomul man c'est le défi que je donne à Boy Bass billahi Boy sàcc ma bàyyi tux boor bi automatiquement duma ci sax nan gur ngi gorlu di keki nangam parce que ngi si def liggéey bu don lu ma chaque semaine wala chaque mois lu ma doon jënd sax di ko consommer chaque mois dama kay gën di wañi nonu lay def bu mu jógee fi chaque mois may wañi lu may jënd chaque mois may wañi lu may jënd chaque mois ba mo ngi tané dal mais dal bas man bëgg na la wo si yeesal challenge waaw yeesal challenge la koy tuddé la yeesal challenge le set fa yàllaahu le set setal challenge le wuyu ji yàlla quoi waaw te man je défie Bass Abdou Khader premier du nom pointé pam challenge waaw booy Bass bàyyil sàcc bàyyil jël lu nga moomul lu lay tudd lu nga moomul alalu sàcc ak taatu jigéen ñi quoi bàyyi yàmbaay beneen fans ah comme jëlaat pare ah comme boo parewaat ngeen yéen day daal dara du ngeen ko am dara saaga rek ngeen mën a duula ki fen association de menteurs et de jéem yak nit lolou nga ba bande ba day ku ngeen defar ngeen mën yak yàq man defaroo leen ci man dara tarafa ayni ba ayni ba may sa di uti xolal yalla si yeen da ngeen ma gëna yaq yàq ba ma dara ngeen defarul si man ku tay su ngeen toge naan da ngeen may yaq da ngeen di dul lek da ngeen di dul naan du lay ki dara du ngeen ko def la len wax sen koku nonu togon kërok di wax di naan ay New York ay affaire de kii tapet la voilà ken de ma la tous tous ken du def salaamaaleykum Baye Fall wokki mi rokki kuma ma ma ma sa mam déggoo me this is America by fi guy yi gënu nu ma am nit nu ma xam nit nu ma con nu ma bandi gënu bay de di duul bay fal di di wax di xëbal xëbal di xëb xëb waa ki waa ki di nuy duul déggoo ma di nuy duul yi fen point kenn du def salaamaaleykum tontu no len ko lu gëna yomb ay ay ke nankam ben da ngeen fo ni que dal yéen nit ñi di ni c'est que vous n'avez rien compris n'avez rien compris mais souvent y a des gens yoo xam ne ils prennent une un petit respect wala kii mais foofu nag laa comme ma ko waxee dinaa jaar man léegi baax na fekk at bañ leen kii ba ngeen yëkkatiwaat encore sama rap yu bon yi continuer leen seen affaire yooyu noonu xam naa daam ñu nam encore sama jikko wundu bu bon bu ma bañ continuer leen si loolu rek ay tak ah démb laay soo gisaat vidéo bu baax la am ne naa am ñoom du ma leen sa seetaan waaw New York lan lay fekk ay kii woo naa ko waxante neen wax naa ko lu ma koy wax wa dégg na lu ma koy wax wax na ma lu ma koy wax déggante neen pare naa si wax gi avancé naa maa ngi si leneen nekkuma fii di benn bennal di ñaar ñaara lu muy woote su ko ñoree toll foofu noonu xam na fu ma nekk xam na fu nangam na ko lijjanti moo gën ndar ndari geeg wax ku bëri geeg nekk fii di kij kajal man samay question laa tal mais bëgg fay nekk ku nekk toll fee di xool si koo koy langaamu pour ut wala ko langaamu pour jaar du ma rek damay xorom seen cottu ndey benn par benn ñoom xam nañ ko xam nañ ma bu baax seen yëfu dof-dof lu yooyu noonu ñuy def du man ak ñoom point barre léegi nag moom affaire de gangster la ay affaire de bandi la ñuy bëgg a def ñu nekk ko si affaire de gangster bi affaire de bandi juróomi at maay dundal sama bopp ndeyam si at bii si dëkk bii nii amul ndey amul baay aw ma saa seen tedd si benn cinquante états yi nag kenn yorew ma kenn xamuluma cottu ndeyam samay mbokk ngi fii États-Unis am naa fi ay mbokk am naa fi ay nijaay am naa fi ay maam amalu nu ma benn njëriñ suñ ko waxee te dee lu appaane ki nangam amalu nu ma benn njëriñ benn nijaay kese ma fi xawoon ak taxawu un moment mooy loolu je parle des ma benn njëriñ ñu si bëri lu may lijjanti sax ñoom ñu ma fi gën a yàgg maa leen gën a xam dëkk bi gën see mën a lijjanti lu bëri jamono jii ma toll. xamuñu ko mënu te ñoo ma fi gën a yàgg am nañ vingt ans fii samay maam am nañ plus de trente ans fii donc ay don't give a fuck benn doomu xaraam bu tëdd. foog ngeen ni que kii mooy la yéen vous na rien compris naan ma ay kii ak nanga ay kii vous êtes fou vous êtes fou vous êtes fou vous êtes malade vous yi nuy ngun-ngune taatu bool point taatu bool moom ragal ragal du sant Camara surtout ma jamono ji képp ku du Moussa moom gërëyee nga waaw ragal du ñëw te question lu ñëpp fi bàyyi bañ koo laaj mu ñëw laajte ko te man maay kuy laajte te nee naa la ku amul sax lu mu laajte ku ragal lu muy laajte ma laajte ndeyam laaj wax la ne ma ma laajte ko ay don't give a fuck yéen moo moo leen moo moo leen ku am sax lu mu laajte lu ko lënd na ma ko sàndil message ma laajte ko ma xool ndax yéen yéen a nu moom ma xool ndax yéen yéen a moom dëkk bi ma xool yéen lan ngeen di def yéen yéen c'est quoi c'est quoi yu fer fuutun c'est quoi ngeen di xaar ku am lënd sax ma laajte ko moo ñuy laajte fii lépp la ñuy laajte lu nu jaaxal nu laajte ko lu nu xamul nu laajte lu nu fen nu laajte ku mer nga dee ah, ay ki toog foofu noonu di wax rek ah ah, ah kii ni nangam ah kii nangam su lañ joxoñee seen su man lu ma gën a metti du lay duul nga déglu parce que yow da nga ànd ak gor da ngay gore nga toog nga déglu leen bàyyi leen nu wax ba pare nga déglu déglu analyser à ton tour yow tu poses qu'une seule question si nous luñ la wax pam la balle est partie la balle est partie ça part en vagabond yow da ngaa yii deki la la laaj da ngaa alku yow de fu ngay du bar. lay Yo de yow nangam léegi hey Yo tu m'as parlé pendant combien de minutes tu m'as obligé à t'écouter pendant que j'avais d'autres chats à fouetter D'autres choses à faire. Tu m'as mis quelque chose dans la tête que je ne sais pas d'où ça vient. Après avoir fini, je fais mon analyse. Je pose une question, ça t'énerve. Une question, ça t'énerve. Et ça part à coup, ça sort en injures, à des calamités, à des choses que personne ne peut comprendre. Une question. Et maintenant, toi, tu veux que j'accepte tes 30 minutes ou 40 minutes de qui Une question. Vous êtes rigolo. Rien de rigolo. De rien de rigolo. moo tax nag ma naa leen comme nu nga ko waxee woon rek démb commencé woon naa waxtaan bi ma cabaxal leen si tuuti ma bàyyi ko ma naa leen Serigne Touba njëkku la am xaadimu rasul Wow, amoon Anas ibnu Malik boo xam ne ni ko moom moo nekkoon si këru yonente gi doon liggéeyal yonente gi moom moo njëkk taxaw autoproclamé boppam xaadimu rasul te yonente gi sax moom musul ànd si loolu yonente gi ay xaadimu rasul musu koo bëgg du lu islaam loo xam ne sax bëgg na ko daganal ko parce que islaam du tuutil nit islaam du loo xam ne day jël nit di ko xoolee si suuf di gi moom si boppam sax musuloon ànd si tur ba musu ko woon bëgg parce que c' était comme si c' était boo xam ne dunguru quoi mooy suq mooy suq yonente gi moom c' était que c' comme si tu tu rabaissais la personne mais mais Anas lu Malik moom moo taxaw moom un moment proclamé ko boppam nag léegi tellement xër bu mu xëroon ba léegi à un moment gars yi léegi mënuñ si daanu bàyyi ko parce que nit bu ñëw moom ba jël boppam proclamé ko boppam loolu kenn mënu si te moom dafa nekkoon si këru yonent gi di ko doxal ay mission di ko waaw jaamu jaar yoon kookoo njëkk am lu naan xaadimu rasul mu fekkee fi borom baax yi mu fekkee fi liggéey bi mu gis ko mu gis ko maa ngi wax tellement que ni que maa ngi wax histoire bi da leen di laal day cukku seen xol yi ñoo ngi ko commencé tëb naan ma Moussa yaa ngi juum Moussa juum nga Moussa kii di nangam juum nga mais man am nga lan moo ma neex j'aime les gens qui recherchent dégg nga j'aime les gens qui recherchent dégg nga dama bëgg les gens yoo xam ne suñu tekkiwee nga ñëw nga am loo fi mën a teg parce que looloo du fi teg de tontu yi waxtaan laa cekki tontu Moussa day wax dem gëstu ñëw andi tuuti teg yaay comprendre yéen nit ñi jàngal nit ñi wala yëgal nit ñi sunu ndaw yéen ngeen ñëw ngeen teggi saaga euh, vilipande daw mais du ngeen teg du ngeen bàyyi da ngeen di ñëw teggi saaga vilipande daw mais teggi teg yaa yërëm leen nu ngir yàlla waaye teggi teg ah mën na le la première personne bu am gradu xaadimu rasul mooy anas ibnu malek nekkoon ndaw bu nu joxoon yonente gi mu nekkoon si këram di ko doxal ay ay yóbbanteem mbokk booboo gën a di ko liggéeyal mi kii mais di ko doxal ay yóbbal comme majordome waaw di ko defal ay yónne di dox si waaw mag yooyu di ko dox ci loolu la def ba mu am gradu xaadimu rasuul te moom moo ko jox parce que yonente bi dégg nga alquran sax ki nangam wax nañ ko tudd nañ ko mais moom c' est un c' est une appellation la boo xam ne ni que du loo xam ne ni que islam gënalanteel na ko parce que c' est un boo xam ne day tuutil nit te islam lépp luy tuutil nit moom loolu du si dox islaam day woote respect moo tax moom ba muy toog di ko kii sax yonenté ki mom daanu ko jaarale si ñëm parce que ay yenn appellation yenn affaire yo am du mom mom mo jël bopam tuddee nonu bopam mais Serigne Touba bu ngeen di wax mom kan moko ko autoproclamé mom khadimu rasoul Serigne Touba kan moko ko autoproclamé khadimu rasoul parce que Hannas ibnu Malik mom au moins fekkee na jamono yonenté mu fekkee ay borom baax ba ñom mëna no taxaw daa di ñëw accepté ko tegal ko daa di ne kii move mais yéen ku ngeen di wax moo tax gars yi daal di wëlbatiku encore tourné daal di ne yàlla moom moo sàq si Serigne Touba mu ñëw nekk xaadimu ma ne la léegi yéen yàlla lu mu waxoon lépp bind na ko fan la ko yàlla bind keroog am benn dooma xaraam bu fël ne ma waaw yàlla gërëm na Serigne Touba si Baxara si aayatul ba ma ne ko yooyu looy wax ni mu ne ma mu ne ma Baxara mu ne ma foofu ma ne ko yow ah wax leen tey ki nee na Serigne Touba dafa ñaan ñu woowee ko xaadim rasul waaw am na si nag léegi man tamit dama ñaan ñu woowee ma xaadimu rasul pourquoi léegi du ngeen ma woowee xaadimu rasul su dee ku ñaan rek nu wooye la xaadimu rasul kay comme mbokk nu ñëpp nañ dem ñaani woote xaaj ba ba lu ñuy sa woowante moom mooy lan ah ah Meuse eh, eh, eh, Meuse Moussa Ndiaye ngir yàlla quoi ngir yàlla soo duggee si gàmm boobu duñ sax sori soo duggee si gàmm boobu dun sax sori ma ak yow si yóbboo nanga nga toog dem noppaleku nee na ma Moussa alxuraan chaque fois métaphore lay lay waxee la bëgg a wax ah gis nga dof yi waxi nii moom mooy dof métaphore moom mooy lan dégg-déggin misaal misaal alxuraan waxul misaal alxuraan waxul métaphore ay duul la képp ku ko wax képp ku ko taxaw ay duul la alxuraanu karim lu mu wax leer na nañ midi

gars yi bind ko jël ko archivé ko jël ko dajale ko ba tey ñu constitué ko mu nekk anu karim nekk wax gu leer nañu gu biir defal lii am lii jox lii ma jox la lii soo dawee ma ñëw soo rawee ma def nii soo defee lii ma fay la lii bëggante def lu mu wax dafa clair alxuraanu karim moom lépp lu mu teg c'est clair comme de l'eau de roche faites-le comme on l'a si dindi araf bu si yokku araf euh, euh, am na kii nu ko Sambay daan na ko wax ba mu naan noo ku kuy ku kuy kuy kuy nu nga te kuy nodd naan asadan ak achadwan gayndee ngi ñëw daw leen gayndee ngi ñëw ak achadu mooy loolu araf soo ko si demee nga changé sonorité bi nga changé sens bi nga changé lu mu yo contexte mot bi yëpp contexte mot bi kenn damm loowu leen araf kenn maas loowu leen kenn nuun loowu leen kenn du ne jàng leen ko exécuté lu si nekk Morgan gagne tok nan nit ñi ay affaire de métaphore bay fall de mo wax de amna con yo xamné so ñoy taw suñu ñoy tay ji ni bu gëna dé 1 plus 1 égale 2 nu né waw calcul pas mais amna con bo xamné so ñoy comme am néna wax na ko def na démonstration amna ben con bo xamné tellement ni que sama 1 plus 1 égale 2 bi daf ko metti won que il a voulu me démontrer par A ou par B que 1 plus 1 égale pas 2

ma toog ma xool ko ma nekk ko cëy métaphore métaphore foor bis boo toogee ba nga bëgg a faire le saa waaye andil na ma benn toq ndox plus beneen toq ndox égal benn toq ndox ma xool ko ba muy nar a dem ma xool ko sama xol yëngal sama bopp xaw ma lu ma koy ma ne ko saa waa ji mu ne naa ma ne ko wax nga dëgg benn toq ndox boobu plus benn toq ndox égal benn toq ndox mais njëgu ñaar. ciow li jugaat fa mu andi waat ma fa benen ciow non nan la benn tok ndox bi mune nek njëgu ñaar mané ko parce que ñaari tok ndox nga jël boole ko mu nek benn comme yow sa benn bobu non genn mën nañ ko xajaat dañuy delloo waat ñaar mota mu ñu ma ko boy ko mboba mu ne mu ne comme boobaa ban ban équation la lay tegal mu ne naa ma ne ko 1 plus 1 moins un nga delloo ma samay 2 tu veux équationner on équationne on est question arrêtez ça soo leen bëggee ay contexte teg ay contexte ay kii on va on va jamais sortir de ce labyrinthe et on va y rester pour toujours à jouer les clowns alors que ni ko wax gi leer na nañ wax gi c'est clair ñëw naan ay misaal wax gi dafa non wax gi xóotul yàlla xam na ni que bu baax ni que on aura besoin de kii donc def ko mu difficile bàyyi néna le premier islam bu ñew suñ ko baye won degré bob kenn du jaamu yalla dafa ségg ségat ségat seggaat ba mu oyof ba xam lan mo gën ci doomu adam ak suñu jamono mu tégal ni ko nenu jaamu mais ñun ñoo feneyaan ah. ñun ñoo pare sa ñun ay bëgg lu yom ñun ñoo bëggul def dara ñun ñoo bëggul def dara dara dara dara on est comme ça on veut que tout se passe comme de la magie tay nu tok di ay affaire de ah non euh, kii naan non come on yaa gis nga faram mboxeen mbaan xaw ma mboxoon mbaan xaw ma mboxoon mbaam mboom mboom mbaan mboom mbaan waaw xaw ma lan daal noonu génnee na métaphore am tamit kan moo si mën dara un plus un mën dara kenn mënu si dara ku si mën dara aawooy ah, kenn mënu si dara chacun fait sa métaphore billaay wallahi kenn mënu si dara Kayambonu si dara laale lewa eh eh eh eh eh kay waxuma leen sax ndax boon yi des na waxuma leen boon yi ndax des na de boo nii kay des na sept tonnes de demi bon yi des na sept tonnes et demi bon yaa ngi fii de waaw yi des na sept tonnes et demi nag waaw buu ko dëgg la lay jar ku bëgg a buu ko rek andi benn réponse paquet réponse sept tonnes cinq cent si des nag gars yi di laajte na bon yi <laughs> si si nu gis waaw bon yi des na sept tonnes cinq cent yu nu gis am na yeneen yu ma suul am na yu ma nëbb si alentouru Dakar yeeg ruq yi waaye instant yi moom si lu nu gis des na sept tonnes cinq cent waaw man buu ko dëgg laay jaayee sawakaay day daa la du si génn de su ngeen waxee laa la wax ba génn si su ngeen ba rocceeku si lii billaay su ngeen ba rocceeku si lii ba xam ni ay ngeen lee yéen musoolen leen yeb client musoo leen yeb client nee naa leen boobu bu nekkee fii ba di dóore di jaay réew di tëb si kii musoo leen yéen a ngi soog a yeb client musoo leen yeb client de léegi ngeen koy soog a yeb nag déggoo lu ma la wax de la lii su ngeen si génne su ngeen oh, du ma ne Serigne Touba liggéey na mais dama naan noo Père Noël si boppam moo liggéey eh eh eh eh eh, eh, eh. soo yaay de ma saa yi di ne gaayam su ngeen waxee ba ma noppi ngeen xam ni ko mooy loolu yàmbaa bi de moom moo ngi fi boo nii ngeen di laajte maa ngi set sept tonnes cinq cent su la lu gaa yi gis mu am leneen lu bëri yu ma suul yeneen yu ma xotti sànni ko géej yeneen yu ma lakk nag waaw yeneen yu gars yi lakk faaru kii montagne mamel bi foofu la ko gars yi lakkee mooy côté côté côté aéroport bi si montagne mamel bi waaw noonu daal la fa demee gars yi non gars yi nag yéen nag comme ni ma ko mën yéen a mën de gars yi duñ may tontul gars yi duñuy xam sama sentiment gars yi duñuy xam lan lay ressentir gars yi instant yi di si téléphone bi lan may xoolee ñii leen yi def laa wax xam naa ni que suñ ma mënoon kii dina ma muccaatu dina ma muccaatu laa leen wax si téléphone bi leen may xool nii laa wax xam naa duñ may seppali di ma dindi xoolal bopp bi xoolal kanam bi veeram yi kii bakkanam bi yow kii am nga genre non loolu may lekk loolu may dëmm dëmm dëmm eh, saa yi duñu may xool laaloo bëgg bàyyi eh, ya dee laalo si ngeen waxee laalo ba kenn si lii billaay ma xam ni kay yéen sen sen sen sen seen seen affaire yooyu moo wax dëgg wee bàyyi fa man du leen mënoo leen si man dar dama wexaat mënoo leen maa secrétu mënoo leen maa secrétu dama wexaat man dama judd rek sama yaay sexal ma jaxatu dama judd rek gis nga ba may jooy eh premier jaxatu len dugal sama gaming. bala du may jox mbibaron jaxatu damay dama judd rek nu sexal ma jaxatu man du ngeen ma yey lekal jaxatu lekal jaxatu lekal du ngeen ma muccaat du xool bàyyi ngeen si dem tontu mënoo len ko vous partez là-bas déggoo lu ma lay wax de oui oui oui sama gars yi non question métti na nak sept mois légui hein joogi léegi mu mat at vous allez nous tenir là un an sans réponse avec vos conneries billahi wallahi un an sans réponse avec vos conneries quoi hein nee naa leen gars yi ban la ilaaha illallaah dama xooloon sa screenshot screenshot nu ma koy waxee ba may yónnee bi message bi dinaan ko gis nga lu nga def si vidéo bi génnee nga fi encore nag sa bopp xam nga ni ka affaire kii man moom laa si roxaat dama ko gis vidéo bi dama ko publier man saa yu ma live ba pare su ma publier damay seetaanaat sama bopp si lay liir yenn commentaire yu ma rëccoon ak yenn kii dama koy tegaat nii sama écran seetaanaat sama bopp wala su ma amee temps seetaan ko xoolaat si yenn affaire man ba ma ko live ba publier ko laa ko gis mais man du ma supprimer live musuma supprimer live lu mu metti metti lu mu tàng tàng du ma ko supprimer si laa ko screenshot yónnee ko ne ko booy

man dama ko xam dama ko sentir parce que man dama xam si famille buma bok ay murit lañu tout dernièrement sama mam gañu na nekkon acteur bu mag comédien Sénégal bu ñu woné ko tele ki romb doomam bok su ñuy wël murit sen bop di len fental ay ki duma wax turam duma ki kii à aux gens d'aller voir kooku sama mam direct le ça c'est ma famille direct c'est ma famille direct non motay amna effet yo xamné ne man du ma sori boy bi nak mom dafa commencé jot ay appel jot ay ki ay wax ay affaire de ki ba nga xam ni que dafa commencé yor ben jikko ba mais booy la man yoy non du lu nuy sorenteeg du lu nuy ki man lu may def je le connais mais comme numa ko waxee aw ma man lu may ak lu may ak lu may daw parce que le problème n'est pas de moi yóbbuwuma ma ken digguma yóbbu yore kenn caabiyam damay defaru ni ñëpp lu nu wax ñeneen ñi wax ko keneen ak keneen lan ma wax fedd fi sama baay fekk ak samay maam fekk ko fi laa fi fekk damaa laajte dong léegi nag laajte bi nag su demee nag ba gars yi bëgg koo yëkkati ko à un grade yëkkati ko à une hauteur dugal ko foo xam ne tourné ko wëlbati ko loom c'est eux que ça concerne mais ku wax ba teg fi dara nag yaa fi teg lu nit ñi xalaat ba wal koo mën a laaj point barre lu may wax démb mooy sama waxu tey mooy sama waxu ëllëg mooy sama waxu ginnaaw ëllëg en attendant jot suñuy tontu. ñuy jot suñuy tontu oh naan baaxul maa leen ko gën a xam oh tux baaxul maa leen ko gën a xam gis ngeen opération dama tux ba nu opéré ma maa leen gën a xam tux waxuma leen sax baax si ay diine ki nangam de waaye si sa sante boog si sa dund baaxul maa leen ko gën a xam dama ko dund léegi nak, tay ji ni fa len tolu moy nan la ni def ba defaru suñuy dom suñuy seut ben jaal si li ñuy jaal nun ko mëna amé nak bëgg na te dinañ ko lijeenti tuñ ko bay mu sedd lu dulu naqari nag duulu cent ans yi commencé lèr dina lèr dina lèr lolu mëno len ci tous par force day lèr motax ma na len en attendant lu ngeen di wax lu ngeen di tepp su ngeen demee chaque jour bay joxe ay adiya wala ngeen di toog euh, si ay kanamu Père Noël di am ay affaire yu ngeen di expliquer su ngeen paree da ngeen wala góorgóorlu au moins hein balaa ngeen fay génn ngeen am benn réponse mu nekk benn déwén ngeen amaat beneen déwén bu si toppaat ngeen amaat beneen su yàggee ngeen matal seeni réponse waaw Malik silla taw inshallah allah maa ngi siy góorgóorlu bu baax ñaanal ma dégg voilà ñaanal ma dégg si yàmbaa gi jaajëf way eh, ma ñaanal ma ngi ci def ligay gu reuy ma ngi gor golu gu bax kay waaw ka géey <laughs> eh, ban gàcce tux ban gàcce comme man bu ma dugalee kaso comme boobu loolu xana dama don xaru yeet ban ma ban ba jaay yamba bu nu tej ma kasso ngir jaayu yamba dugal mo l'observateur taxawal ma ci kanamu tribunal mu fess del ak del del gatché koñ bi ñepp ñuma ma respecté ma ñepp xamné may jaay yamba sama famille ku nekk ñëw di jaabante ben ak ñaar di xool ndax El Moussa mo nak ci kasso bi gatché ah nak yo sama gatché bi sax xam na su am moy fan sama nday gi ni nu dem ba fekk la mu teud nu jël ko exposer ko fu nekk tek ko di raconter sen merde gàcce nee naa la xeexu yonente gi salallaahu alayhi wa sallam xeexum dëgg soo si nekkee dangay ngay asaaloo sa bopp man dama asaaloo sa bopp nee naa la lépp lu ngeen di woowee gàcce wala lépp lu ngeen di woowee xaw ma lu ngeen koy koowee si kombaa bii ma nekk nii pour man ndam la parce que lépp man sama bopp laa jël ma asaaloo ko yàlla sunu borom ak xolol yoonam bii booboo gën a dee donc tey lépp lu ngeen di jéem a def yeen pour faagaagal ma man si sama yoonu ma jéem a defaru ak leeral tamit yéen non noo du gàcce de ndam la si man parce que tey jii nii lu ngeen di woowee gàcce su nekkoon démb lu nu noqante ba ma siy toll muy nekk gàcce may yor xel mooy temps yu may noqante da may wax lu ma neexul ma saaga la noqante parce que loolu laay dund may jamono ji j'ai lu naa l' esprit de surpassement l' esprit de dépassement l' esprit d' analyse et lu naan un sang froid qui va motax nak yenn yi ni di len metti wala yenn yi ki di len def ni man munuma def problème parce que ma lutax bala mo metti man damay tok analyser ko tay jii nii man suma togué tay tey jii ba analyser lepp tout le contexte dès le départ yaakaar nga ni que dinañ ma wax salaamaaleykum wala maaleykum salaam su ma jëluloon man décision wu génn ñëw taxaw xeexal islam wala ñëw taxaw am cause bu may xeex nga foog ni que nit dina ma yab bay ñëw toog di am lu muy expliquer naan Moussa def lee wala ndeyam a nekk nii wala ndeyam wala léegi naan kenn du ma si yëpp parce que du seqanu ko sequnu ko. donc tey man su ma ñëwee nag tey ba ma toll si degré bi ku si nekk di jéem a am fu muy langaamu teg c'est parce que man maa jël sama décision ñëw taxaw. am cause bu may xex donc il fallait que je m'y attende il fallait que je m'attende à tout te nee naa la lii nag mooy lu gëna a sedd ah wow lolou kay dama kay wax sa gars may andal so wala gars yu may wax man na leen bàyyi gis nga li ni jàpp leen ni que ça, mo gëna a sedd si wax gi la ñi ni. lu nu mëna def wala fu lay jekku dinañ def le pire nag daal mom je vous le dis mo li toujours ça vous montre le degré de connerie ak le degré de bêtise comme nu ma koy waxé rek mais man nak mom je suis prêt aujourd'hui plus que jamais

man mënumaa daw problème en fait sama baay yaruma pour ma daw problème problème du ko daw sama baay daf ma mus yar pour me affronter problème daf ma né problème loo daw muy gëna ngandé problème du nga koy affronter fay ko deug ko dal ci mu jeex tak daw lu ngeen di gëna fep di def sen affaire de coin ni man je suis toujours dans parce que nee naa vous me prouvez ni que nous sommes dans une pente catastrophique si laay gën a taxaw lu ngeen bay gëna a kii di foog si laay gën a taxaw lu ngeen yuuxu kii taxaw si lay gën a ñëw taxaw jàkkaarloog yéen billahi un pas du ma ko teg en arrière ndax waaw tant que njëkk ak teraanga tegu fi tant que respect amu si que yaru ak wax dëgg amu si un pas un iota un virgule zéro centimètre du dem je avec vous déggoo leen ma de billahi Abdou Ndoye rek réponse rek Baye Fall la ilaha illallah su ngeen su ngeen ma amoon sax boog taatu neen ngeen foto ma teg ma dans la place publique marché bi jaay samay taat jaay ko poster eh exposé ko fu nekk suba suba suba suba ma taalaat sama téléphone live ñëw posé samay question booboo gën a dee booboo gën a dee bay Fall su ngeen xalaatoon lu gën a bon sax si àdduna wala kii ni nangam ngeen lijjanti ko teg ko woo nga tourné billaay walaay mën ma yàlla jox sama xolo wérgu yaram rek may ma fi sama nafsu si kéemtaanam ak kàttanam ma yor sama téléphone chargé ba mu fees ñëw taal tegaat samay kii ñëw laajte point barre point barre bay ah yéen comme yéen boo bëlee xamoo leen nu ma ñàkkee jom si combat bi xam nga xeex soo koy xeex soo si bëggee am ndam da nga siy jàkk da siy ñàkk jom man xeexu sallallahu alayhi wa sallam bi dama see ñàkk jom. dama say dem ba paan déggul ma dama say ñàkk jom dama say joxe sama lépp toog leen foofu lii c'est pas mon combat moi xeexalu ma som bopp lii suma ko xeexaloon nee naa la bi ngeen may jooy tey jii amaana sax est-ce que dinaa ko xam waaw mais pendant que nu waloon maa xeexal xamal ma diine gars yi ngi doon uti ji ay poste ñi di uti ji leneen ma taxawaalu si mbedd bi tuxi ji yàmbaa et puis man nee naa leen man du ma metti parce que man ba may dem di jébbalu j'ai encore fait dem jébbalu si sëriñ boo xam ne doon naan du mandi mo nekkon sama serigne nek sama wasila may tux ci buntu bi duma mandi momu nek ci bi di nante du mandi yeah qu'est-ce que vous voulez maintenant ça vous fait mal man sama wasila da don naan du mandi voilà momuy nek sama wasila don nante du mandi te kenn waxul ko moko ko waxal boppam yeah man temps non may tok ci buntu bi di tux te duma mandi mais léegi comprendre nani que c'était des conneries ah oui léegi lolou len kay c'est quoi le problème hein Wow, ah, gis nga question yi a pengen ne mën nga Vanessa a ngi noonu di ko eh pourquoi Serigne Touba avait 33 femmes tontu leen ko Malick Silla waaye dese naa sept tonnes demi wu yamba de dese naa sept tonnes demi wu yamba sulna na nag lu si fo foofu côté njaar yi nag alentour yi ak yeneen yu ma sandi géej mais instant yi moom boo des na sept tonnes demi ñaata nga ah Babacar Vieux Diatta xaw ma ba no Bakary Vieux Diatta nee na ku ñàkk jom non ku ñàkk jot moo lay déglu tux sa yamba di bandi bandulu ma ne ko comme yow am nga jot parce que yow yaa ngi fii parce que su nekkee ku ñàkk jot moo may déglu yow am nga jot parce que yow yaa ngi fii di déglu bay commenter yow déglu woo rek yem si mais yow da nga commenter comme léegi yow lan nga yow waxuma la ñàkk jot mais comme yow nan bay non, legui ne nga nga tuk sa yamba di bandi bandulu ah wow amul problem su dee non nga ko jàppee mo gën nan sa sangara di dem demul wala di yalla yàllalu xam nga bobo tane man dama tuk sama yamba di bandi bandu di len wax fa yalla mais ñu nan sen sangara nak di yalla wala tuk sen yamba di yalla yalla ba pare bëgg yori yore aljana man kay man ñoo sama problem. mo tane man la yenn fu ngeen nanguwee ni ko ñoonu yor teenu caabi mën na no dem aljana ki nangam man war ngeen maa may jàmm de te lijjantil ma daara léegi ma commencé missionné nag ah sëriñ Modou Kara ku mu dugal àjjana man ma mën a dugal dëkk bi yëpp sëñ Cheikh Modou Kara su dugalee benn àjjana ma dugal Sénégal yëpp àjjana lan mooy seen problème Serigne Touba su dugalee benn nit àjj li nga maa ngi jéggalu sax daf ma rëcc Cheikh Modou Kara su dugalee benn àjjana ah man ma dugal Sénégal yëpp àjjana Serigne Touba sax moom tamit boppam sax maa ngi naa sax damay juum mais yàllaa ma ko waxloo Serigne Touba sax moom si boppam su dugalee benn àjjana man ma jël waxuma la Sénégal rek de ma boole kook Chine Asie Europe ma dugal tout le monde waaye fii kenn du dugal kenn na ku nekk yaay liggéey lu lay dugal àjjana na kenn du dugal kenn àjjana ku nekk yaay liggéey lu dugal àjjana voilà ku nekk. yaay def lu lay dugal àjjana loolu kay moom maa leen ko wax ye ye ye gaay gaay ne ñoom ba léegi ñoo ngi ut ku luy rusloo nee naa leen def man ñàkk jom laa def jom féetewul fenn si man jom jom su rombee ba jege si ma sax day daw oh, jom laa ñàkk ba mu jeex si combat bi dégguma jom jom tafuma ko fenn si man yaa xam nga ne que lii lii su ma su ma rusoon tey kat du ma gis fenn fenn laa dul génn abe fa laay njëkk commencé vidéo bi laay njëkk dem supprimer yaa ngi comprendre tongal gars yi ma ko def lépp daal di dem commencé la report xool nan laay def vidéo bi jóge si internet maa ko njëkk partagé vidéo bi dafa ñëw ma xool ko ma ne ëpp nu yónnee ma ma xool ma partage ko ne leen voilà gis nga lu ma ne suba maa ngi jug si gars yi maa njëkk partagé vidéo bi vidéo bi dafa ma dal sama ma partagé ko ah bay ruus ruus laay man kay ba ma ruusee nee naa la yàgg la sama rusukaay jeex na ba ma ruusee mooy ba ma amee sëriñ bu ma toog ne ma te joko jox ko sama aduna ak alaaxira mu tok ne ma man dama do nante mu duma mandi mané ko ha señ bi nek ci taatu xalé yi nek senen man sama gàcce jeexna ñu mu walon yobbu aljana ñu nu walon defar nek ci fen mi sàcc bi ñu leen di japp ay dagale trafic phobie billets trafic d'argent trafic d'armement proxénétisme biral di bañ sàcc alalu askan bi gàcce bobu man suma ko yobale ba ci kanam yalla dal di ñii ñoom wala dugal àjjana gàcce boobu noonu fan la may féetee wala dem si kanam yàlla léegi yàlla na ma lu tax liggéey yow pour ñëw dugg àjjana ma tourné xool wayu bu gënoon danger sama jamono maak moom si ko su ma ne kii moom a digoon ne ma ni que su ma ko toppee jox ko aay kii naam dina ma àjjana mu ne la kee mu ne kee ne dund na sa kaw kee ngi ne fële la jëm léegi yow nar a def pour jàll fi nga nekk fii dinaa koy kii mu ma nekk bàyyi na ni sonal seen bopp bu nu teg ñun Sénégal kay teg ko yu laa ko ati la ummu islamique ngeen teg ko bépp jullit gàcce googu noonu man laa àttanul gàcce mu ñëw toog jël mbindeef boo xam ne xaw ma fan teg ko si kaw yonente gi jël islaam yàq ko teg si leneen gàcce googu laa àttanul mënuma koo yóbbu même ba wala xool yàlla ne jamononte naag jamono jii yàlla naa ma yow jamononte naag jamono bu ñuy jël alquran di ko def nii di wax li yonente gi ma naan ko waaw jamononte naag moom mun naa ma loo si def mu ne ko ah dama maandu woon non gàcce goog la attanul billaahi attanu ma ko attanu ko waaw ko de waaw waaw sama gaay waaw ka rëcc nga si comme ça eh tey laa def gën de sept mois après butéelu sangarabi il fallait que tout bi vous savez c'est comme ça les vieux diables ils vont me rattraper mais c'est comme ça mais il faut être solide mon Moussa parce que tu te bats pour une cause noble quand tu t'es réveillé pour ça personne n'y peut rien tes anciens démons vont te rattraper il faudra être solide et comme je vous dis je vous aime les ñuuxit je suis avec vous hein on va se chocotaner. Le News National arrive bientôt. Yann Boy. Nekolen dirait quand vous levez la vie, hein? je suis là. Ah ouais. Eh, eh, eh, eh. Oh, mes gars, vous êtes drôles, quoi. oh, mes gars, vous êtes drôles. Hein? Vous cherchez quelqu'un qui est posé pour faire les malins, quoi. Ah, c'est pas moi. Hein? Moi, j'ai accepté mes anciens diables.

Eh, eh, eh. yow booy Modou seen soo amee looy wax nga dem wax ko sa page booy dégg nga soo amee looy wax da ngay dem nga ndar ndari ko sa page booy fii sama page la c'est pas ton problème wala soo amee looy wax soo amee tolluwaay booy kii da ngay dem nga gérer ko mais seen yii ngeen di def nii di jéem a xool fu ngeen di kii lu ngeen di wax mooy loolu noonu quoi du man ak man wala du man ak yow. soo amulee looy tontu andi nu ay réponse waaw tu la nga xaalu gars yi di xaar quoi loolu moo gën ngeen di jéem a def seen coalition wala seeni affaire di tourner di jéem a xool lu ngeen di woote wala kii eh fii yàllaa fi nekk alquran point yàllaa fi ne alquran point Serigne Touba moom la xeex moom la liggéey ba nu jox ko si ab grade ku ñëw ba a taxawal jàppale Serigne Touba da ngay respecté yonent gi respecté yàlla ku jël leneen nak jël tek ko ci kaw yonente gi tek ko ci kaw alquraanu karim wala nga bëgg jël Serigne Touba tek ko ci kene nu xoram seen cottu nday ye ñep benn par benn I don't give a fuck lu ngeen ko xalaat ak fu ngeen ko teg ak ki respectez nous on se respecte da ngeen bañ ko laal seen gëm-gëm jàppaleen ni ko yonente gi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ko bëgg tamit te boolew nu ko dara su ngeen di wax si moom wala su ngeen amee lu ngeen di joxoñ ci moom vous le parlez vous le faites avec un respect jox ko cërëm jox ko yallokum comme ça on se respecte tous

moo gën ngay toog naan ay diw du sa moroom ak ay diw ak i nangam fii kenn moroomal teew fi kenn doonoo ne na dëgg bi leer na wax gi leer na rang yi jub na wax gi taxaw allez qu'on se respecte la leen wax arrêtez vos conneries moo gën lu leen di wax lii ngeen di wax lële raconter des cons arrêtez ça waaye yow soo réewee da ngay dem réew am loolu sa page fii sama page la dégg nga yaa am fekk sama page am looy expliqué sooy am looy réew da ngay dem nga réew ko sa page maa ko yow ko voilà lu ngay wax waxuma ko lu ngay wax waxunu ko bokkunu lu ñuy wax nga dem wax ko fële voilà sequnu ko oh te tes conneries essayer de faire tes choses là yooyu su ngeen koy defee kii ne ngeen dem def ko yéen man arrêté man seen i ngeen di def nii parce que toujours su leen mayee lii ngeen yëg kii nii di seen yooyu ngeen di da ngeen di fay c'est fini tout cela fini tout cela maa ngi si yeneen wax Mor Galsen réponse du fi am de bandi bandiru rek a fii am ay fanatique yu kat seen ndey di jéem a am lu ñuy woote di ñëw di kii du ñu dégloo xel toog déglu lu nit ñi di wax ñëw di xëbal xëbal di jéem a jaay ay affaire di dal si kaw yi jéem a jaay ay zak zak lu pour jéem a teg allez-y faire foutre voilà lu ma leen di wax boobu ba léegi su ngeen ko mënul déglu ngeen kat seen ndey yalla ak yonenté gi la leen wax point alquraanu karim su ngeen su mënul ñew seug te ngeen ne ay eh, ñi tuddé ay seen bop ay muhammadu ñi tuddé seen bop ay ibrahim ñi tuddé seen ki ngeen ñew am lenen lu ngeen di tégg di ko teg seen leufal nday yeen nga ngi comprendre seen tuunu nday légui nak le reste la nak su ngeen ko fi andé ngeen bëgg ki nu kat si ndeyam arrêtez d'emmerder les gens lu ma di wax c'est clair comme de l'eau de roche 1 plus 1 égale 2 arrêtez de tourner samay wax diko jël diko yobbu feulé fële kaa leen nu defaraat lu yàqu kaa nu wax gi la leen wax alquran ak waxu yonente gi salallaahu alayhi wa sallam xamuma kaay la ñu jàngalante ñu xam jàngal ñu xamul ñu yeewu ñeel ñeneen ñi ñu yeewante nu si sutna ak farata yonente ak jëmm yàlla sunu borom xawma nu ngi koy wax teg ko si loolu laa leen wax la merde que vous m'avez nee laa nag ngay ñëw fi ba ko andi di ko manipuler vous vous branlez avec ça keneen ku si d'accordul si loolu wax si leneen mu naqari ko sa tuunu ndey voilà vous nous emmerdez quoi waaw vous

Si la religion est, si la religion est mon problème avec toi, tu niques ta mère. Voilà. Et je te bloque et tu dégages, tu peux jouer d'autres choses. Pas te faire foutre. Non, mais voilà, laisse la religion tranquille, c'est ça mon problème avec toi. Tu es qui pour, me faire laisser la religion Motherfucker. bah kalma e bandi bandulu ni Umar njay Umar njay yow yaay ya bandi bandulu ni Umar Ndiaye suma sama mam su santu loon njay ma wax la lu grave parce que si say maamaati maam laa naroon tibbee di ñew mais sama mam su nekkuloon ap njaayeen billahi ma wax la ma wax la ay baxu alburi ma ay alburi njay commencé ko fofu non ay ay baxu alburi njay fofu lay commencé ba ci sa juróom ñaarelu mam mais nak hélas damay xool njaay bi xool si jëmm sama maam be xam nga naa la waaw njaay jaata njaay góorgóorlu dégg nga yaa fii leenu ñëw di saaga sa ndey doo si men dara na sama ndey am nga sama ndey instant gi moom moo ngi fajal boppam sama ndey instant gi soxaluma dama leen koy wax dëggantaan instant gi nii si li ma nekk nii sama ndey soxaluma sama baay soxaluma xam lan moo ma soxal samay tontu yaa ngi dégg sama ndey nekkatul fii pour tontu ma mën naa liggéeyal boppam mën naa xeexal boppam néew bu nuy xeexal moom wala néew bu nuy waxal perte sa temps c'est comme kuy saaga néew yaa ko tey doo si am tontu ni ku dee ba pare nga koy saaga yaa ko tey doo si am tontu comme boog nu ma koy waxee rek daa am ñoo xam ne dañoo perte pert seen temps di ut ku ñuy yóbbaale si perte de temps man nag je si suis pas dans ça man dama ñëw ba woote leneen mooy lan tontu yi man looloo ma soxal yow mënoo maa tontu nga bàyyi ma fii ma ne ñuq dem di saaga ab néew. Ya ko tey du lo tontu du lo tontu motax tax man naa leen ngeen di nelaw fo vous réveiller ce monde là c'est un monde réel c'est un monde concret pas abstrait ha saga yoy non ñaata wër yéen a ngi saaga sama nday du 7 mois da feeñ fenn daf ma tak fenn da ngeen mu so rom ba balance bi fess da am fuñ ko taf daam ngelaw bu ko dégg non déggee na saaga saaga saaga yeewuwaat fekkaat ma fi ma toog juróom ñaari weer ngeen saaga saaga saaga waat fekk ni ko du man léegi loolu ba léegi yeewu leen ça ne vous a pas mais yéen a ngi si jàpp ba léegi et vous me parlez de quoi ay waay nekk leen ay nit ñu am ambition bëgg leen dara seen àdduna waay yeewu leen ana réponse góor góorgóorlu leen léegi nag comme ni ma koy waxee avant man kese la woon maa tingoom sa ndey sept mois di përi ak yenn nii salsa di pacanga lu nekk lu dugg si léegi nag y a les renforts ils sont là oui je plus seul y la famille qui se forme les gars arrivent petit à le news national

Billahi, paa yi loolu leen bëgg ma dooma xaraab bëgg on va se news dans le pays là on va régler ça di leen ko vient, vous allez vous allez nous répondre dee leen di wax rek vous croyez que vous allez en sortir comme ça Néna, naa leen centimètre du ngeen ko gén centimètre du ngeen ko bouger ñoo ngi yegg si seen kaw di ngeen nu tontu avant man kese la woon moo tax ngeen neexle woon di tëb léegi maa ngi commencé fiir pression baa ngi wàcc parce que ya ça yaa yaa waaw y a les alliés yi commencent à venir doucement doucement boo yaa ngi ràlli da ngeen foog ni que man léegi laay soo comprendre nekkate wuu ba ma gisee gars yi di kii nangam laa ne ëpp tim bi benn fan ñaari fan laa lu mu dajale sini dama tiit dama ne wow booy gars yaa ngi dégg de gars yaa ngi dégg te ñoo ngi dégg te ñoo ngi ñëw seen kaw maa ngi leen koy wax na ngeen di caga-cagalu meñ leen defaraat seen toogaay ak seen waxaay ak seen kii da leen dof-dof billaahi gars yaa ngi dégg ñoo ngi waajal te ñoo ngi ñëw seen kaw toog leen foofu noonu di xaar ngeen daa leen dem rek tooloo leen xam nga tey jii nii ñun ngeen doon tàggat pour nu nekk ci futurs yahud ñun ñii ngeen doon yàq du nu du nu détourné def nu ay yahud ñoo faf yeewu sa yoon ba nag maa ko ñëw fas yéene toj seen cottu ndey loolu moo lu extraordinaire moo leen jaaxal nag ngeen di paniquer ye comme nu leen ko waxee ñun danoo nekkoon di dox si islaam ñuy séntu attaque feneen di séntu ni ennemi bi feneen fekk ni ko yo ñu nu donne attaqué ak ñu fas yéene woon islam bi ñoo ngi ni suñu wet à zéro mètre c'est suñu biir di mag ndank ndank on les a pas vu venir ils ont commis la même erreur en voulant être trop gourmand et trop accélérer les choses à vouloir vite grandir nous nous donne détourner yep

fii nag lañ koy ñuusante lii yow looloo xew nii en petite synthèse looloo xew nii instant gii ñun nii ngeen bëggoon tayle jël nu yuus nu tayle suñu live ñu defar seen àdduna ñun ngeen teg nu si tali bi nuy maa jaar tuxi boo naani sàngara kookoon suñu dërëm yi jox leen ko addiya ngeen di defar tabax ay pale takk si jabar yu moo nekk di naaw faat nag si diggante yoon bi avant ñuy àgg sax la trentaine mooy si diggante yone bi ñu commencé ay ambition ay rêve ay affaire yu ñew ñu koy tek et à chaque fois que nous tek benn pas on voit quelque chose qui nous bloque chaque fois que nous tek affaire bi mabbaat mel ni pyramide gars yi xool mel nu fa démé ni nekkete yo dooma xaraam yi ñoo ñuy njabar si ginnaaw ñoo yor ñu ñew di len laaj linki on va se casser la gueule ñongi ñew sen kaw ñongi ñew sen kaw lu ngeen bëgg dafa yomb de lu ngeen bëgg dafa yomb la leen di wax nee naa de yamba bi des na moo boobu noonu mooy nekk slogan wu ñaata maximum un mois rek ngeen di tenir wala est-ce que di ngeen tenir mois une semaine deux semaines comme nu ma ko waxee sénégalais moom day xewle benn kii lay jàpp foog ni ko mooy loolu léegi mu jeex nee naa leen boon yaa ngi fi boon yi maa ngi seeg sept sept kilos waaw non sept tonnes cinq cent maa ngi seeg sept tonnes cinq cent yu ma àndaale fii teg ko beneen bi maa ngi ko bàyyi foofu dakaar yeneen yi maa ko sànni si diggante si géej loolu amul problème nee naa leen loolu une semaine maximum nu bàyyi leen ngeen enjoy yamba bi des na yamba bi des na yamba bi des na yamba bi amul sens su ñu passé ne la kii lu ngeen di wax ngeen wax ko ngeen tourné y' a pas de sens amul mujjantal waaw booy bi de kii nangam kii nangam booy bi de ba léegee ngi wax booy bi ba léegee ngi fii di ndar ndari booy bi ba léegee ngi posé ay question boo ah donc lu ngeen di wax ba góorgóorlu leen xam nga mooy loolu quoi nan ma lu di wax ma nee naa leen loolu ba nekkul samay problème man su ngeen ma tane woon rek mu nekk samay problème su fekkoon waa waa jàkka yi nu ko ati alquran su sunna ak alquran ñoo ma ko sa ma rus waaw su fekkoon sa xam ne gars yi nekk si yoonu yàlla ñoo ma dóor lii ma rus mais baay ñoo xam ne ñoo ma dàqatu su ma nekkoon juin nu tux ma ñoom ñoo ma bëgg a xas ah garaawul su ngeen nopp su ngeen sonnee di ngeen ma noppi di ngeen ma tontu quoi

Đấy, Rigolo lên Em sai quá không ba lên Ow! papa papa si fay yow kay waxu wala kase que c'est eux maintenant qui de ñoom kay ñoo ngi fii musuñu fee jóge ñoom ñooy seen premier internaute di laay ñu xiti laay laa nee naa la abonné leen def de am na si ñoo xam ne am na la ñuy def trois page la ñuy link si page bi trois Facebook soo bloqué bii rek ñu dugg si bee da ngay dugg rek yëpp sonendoo tet tet tet tet El Hadj Moussa Camara is su ko defee nga gis leen nu daw ñëw gars yi duñ ko tardé de deux heures de temps gars yee ngeeg ñun waaw man souvent sax damay wax ba ne nii foog ni ka gars yi gën nekk te ñoo ngi fii waaw gars yaa ngi fii de dégg nga Masta Ta Masta Taja nee na yow ku ñàkk jom nga du da nga doon joxe bon exemple nekkate ab doom loolu mooy seen problème loolu mooy seen nee naa leen arrêtez de vous jouer les il faut prendre les mots comme on vous les donne xam nga la moo gën a bon nit wax la dara au lieu nga dégg ko nu mu ko waxee nga dem nga bëgg koo déggee neneen ba pare nga dem def leneen nga ne moom moo la ko tax a def te fekk ni ko moom waxu la loolu moom lu mu la wax lii la mais yow yaa doon jay trop intelligent ba wax gu la wax au lieu nga déggee ko nu mu la ko waxee nga dem di amad benen ententement mal musuma la ne je suis un donneur de bon leçon. de kay la len ko wax da ngeen tiit nee vous avez peur musuma len ne je suis le donneur de bon leçon. que je suis parfait chaque jour bañ naa que Ça, yu may laab ba affaire bi je le répète du ma wàlliw du ma malaaka du ma dëmm jinne je ne suis pas le plus parfait voilà dama sama photo yéen après photo naan sangara bu ngeen del tas ko fu nekk royal docu bi du wër la fu nekk donc loolu rek ça devait te donner la puce. chaque jour ma insister mais nak, du niko, nit koo ni que après def sama yu bon ma bëgg a baax ma jël islam bi di ko tourner pour accommoder ko si samay doxalin pour baax non man maay bàyyi samay jikko yu bon delluwaat si lu islam bi wax jéem defaru ba mën a baaxaat dund dara nag tollu ko dund ko weesu ko bàyyi ko bonul lu bon mooy dëkk si sànq jose lay de je l'ai kaay leen nu dem baaxi ji kaay leen nu dem liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam fen yu nu fen kii kaay leen nu leeral islam bi dem na ba jaxasonu diviser pour mieux régner tarikha yi diviser nu pour mieux régner dem nañ ba réer xamatu yàlla yalla kaay leen nu dem parce que waxu yalla gi amana nu amna nu ko doon dugalee suñu bop tay du nu tollu fini ba nga nan diwo ngi nan wala diwo ngi tux tay suñu demé ba Sénégal majorité julité dak nan chrétien yi dàq leen tuk nga xamni que ya am problème duñ koy wante nun ñun jullit ño dakka nan naan chrétien jullit rek ngay ramasser si bop ko ñuy es di daanu chrétien yi jamais nga gis ko c'est nga gis chrétien bu màndi si mbed bay es di daanu c'est rare yi seen i bii kër la ñuy toog gérer suñu génne ñuy saf il kii nangam mais nit ñi ngay si daanu kii nangam jug màndi am yàqale musulman si loolu laal leen wax arrêtez de vous jouer des films dès le départ moo tax ma ne leen léegi comme que xamuma yéen ñi xam kaay leen ñu xool lan la ñu islam wax si am 33 femmes Nous commençons à dire tellement que vous avez peur de nous. vous m'avez tourné vous m'avez donné une image qui vous fera plaisir mais lolo, c'est vous qui voulez me donner une image qui vous fait plaisir aidez-vous mais quand vous avez fini aussi aidez-moi avec mes réponses come on guys come on guys un moment vous devenez ridicule un moment vous devenez ridicule je n'ai jamais dit dinaa yóbbul kenn àjjana yor naa caabiw vous xam que damay jiite jumaat que wàlliwu de man sama ne dama pas kaso mais tellement que ça vous agace il fallait que vous en trouviez un petit jeu pour en jouer Les ni walna mat kilifa parce que lutax sama doom ngi taxaw sama njaboot a ngi ki léegi foog ma defaru te maa ngi si yonu defaru maa ngi jubóog sama bopp nag maa ngi si wo kaay dem djubok sunu bop te nu liggéeyal yonente gi sallallahu alayhi wa parce que nit ku dem ba gis yon gu bax nak ba si defon nak gis si ngëneel wala see mën wo ay mbokk c'est ce qui vous énerve ngeen nan ma non je suis un donneur de bonnes leçons je suis pas un donneur de bonnes leçons je suis un appeleur à au redresser ce qu'on est en train de foutre en l'air. Je vous appelle à venir nous dire soit le Moussa que nos parents nous ont donné, le Birle nous, Ibrahima wala Hassan, wala Khalil wala whatever tous tout nu tout nous nous nous nu jot jox ndax ay le respecté wa ila nous nous le nous c'est clair et net mais les euh, comme nous on n'y peut rien Il y a des gens qui xam ils sont naturellement comme ça quoi comme comme comme moi aussi je suis naturellement têtu non ils sont naturellement cons donc c'est comme ça quoi ah yeah. déggal papazi papazi fay tamit am lu ko metti man kese man m'a nit parce que man je change quoi léegi gis nga na nit ki tamit waxul nit ki taxawul je comprends Sénégal ça va être vraiment difficile pour Google dara si bopp nit ñi comme man kese su nekkoon man maay nit hein? parce que je change donc man ba may jéeg di du ma ne kaay leen ñu dem nu soppeeku damay toog di jéem a soppeeku di wax waxu dof wala mais ku ñëw ba ne kaay mais ngir yàlla wala parti bi comme nous ngeen di nous ku ko président Macky juste ce petit intervalle là rek rek rek rek rek parce que c'est très important ngir monsieur le président son excellence chef de l'État chef suprême des forces armées monsieur Macky nous vous prions solennellement de vouloir nous aider à intégrer nos langues nationales, en commençant par le Wolof, le Peul, le Séré, toutes ces langues nationaux dans notre éducation scolaire, tant à aider notre jeunesse et notre futur à avoir une meilleure compréhension du dialecte. Parce que là, ça part vraiment en couille. C'est difficile d'expliquer quelque chose terre à terre, point final, en une langue Wolof, comme on le dit, la langue, notre langue maternelle. On est en train de perdre notre culture. On est en train de perdre notre culture. C'est vraiment difficile de parler Wolof maintenant. Parce que mangue va être mangue Orange va être Orange. Lemon va être limon. Ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir, quoi. Eh, eh, eh, eh. Ouais. Dégal, dégal PDS Karim. ah le fait de ne pas croire au tarif, c'est une histoire de complexe le fait que je parle à Macky Sall pour qu'il puisse nous amener Baye tarif au Sénégal andiw ko encore une première fois Il y a un Y a un existe. est-ce que c'est bien pourquoi vous voulez vous accaparer quelque chose de comme ne un ngeen ko fekk pour yéen Sénégal kese la am tarixa yi am Maroc De l'Arabie, a un na Chit tarixa la sunnit bari na ay ku nek am ku muy fi gëna ki c'est pas une histoire de complexe c'est une histoire de goût complexe Andak ay fen si complexe la lan ban sens parce que seulement nous sommes des Africains avons créer une histoire de pure sur et que nous, nous devons maintenant promouvoir cela au point de ne pas être compétents seulement pour donner une valeur à notre pays. Mais que, où sont nos valeurs Moi, les valeurs de base, dire la vérité, Tahaou, de goût. mon une valeur. Les hommes noirs, à l'époque, c'était déjà du dit qui est une de ces valeurs, non. une interprétation au Camara suñu santi sentons, su ngeen demee ba ngeen xool santi, yi ngeen xool signification santi yi ñu yor lépp dafa amoon sens c'était des sens valeureux c'était des sens honnêtes c'était des sens ay nit yoo soo ko automatiquement da ngay xam lii la donc c'est pas une histoire de ay qui complexe non c'est une histoire de vérité tey ñun notre histoire est fausse et vous voulez maintenant nous faire promouvoir cette fausse histoire que nous-mêmes que vous voulez que nous promouvons, on n'arrive pas à expliquer. Soyez d'un bon promouvoir cette histoire, il faut pouvoir l'expliquer. Mais cette histoire de Serigne Touba li wante dëgg tegal juróomi mourit, bu leen teg nous vous de que l'en séparément est ben benn laaj laajal ben benn laaj vous même laaj bi soo Vous tontu yu wuute. même bi nga si même wax gi nga di wax mais ku si dina la bu différent ku ma si bëgg saaga su la neexee nga saaga ma mais suñu paree dama bëgg nga daal di dem nga essayer lu ma la wax après soo ñëwaatee nga saaga ma y a pas de problème mais toog def sa kiinii rek ndàngam mooy lool soo paree saaga def lu kii génnal yaa ngi Sénégal wala kii am nga chance gis Baye Fall laajal question bu gën a ki toogal ak benn Baye Fall keneen ki bu ko kenn déggante laaj ko question bi nga dem fee laaj kee laaj soo paree di nga am ku si nekk sa tontu mais juróomi tontu yi du ñuy sama gaay am leen jàmm waay am leen jàmm am leen jàmm billaay wallaay ma ne leen su ngeen yaakaaree ni que du ma koy waxee di ngeen génn si lii laa ilaha illallah ah né naa ne li de su ngeen ci gënné ma xamni ka Bob, ay ngeen dëgëroo leen bop ah waaw dëgër bop dëgër bop dé mom défo leen ko sax ku leen gëna dëgër bop ngeen ko sikkal damay ñëw fi légui tagoto ñaanal leen comme nu ma koy défé sa su nek ñëw raccrocher def nonu ba suba inshallah allah ñëw dajé waatat encore même heure même point même ki rek nekkaat si luñ ko ci nekkaloon comme nu ma leen ko waxee chaque jour xam nga daal di ñëw rek. poser suñuy question ne ko si wax gi waaw doxal wax gi kay comme ni nga koy waxee yéen kay gaan nekk leen ko rek jàppee leen ko noonu di xool di naanu ay affaire de ak ni nangam te naa leen te naa nag tey moom yéen ñi di dagg vidéo yi di dugal samay yu YouTube vidéo bi bu ko kenn dugal YouTube man dinaa ko promouvoiral sam bopp ku ko dugal YouTube naa ko bloqué waaw yeneen vidéo yi amul problème mais vidéo bii ku ko jël transmettre ko YouTube ma bloqué lu ko voilà man sama bopp dinaa ko fa dugal voilà naa ko fa dugalal sama bopp naa ko promouvoir sama bopp maa ngi yéen léegi on va passer dans une autre vitesse supérieure eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh sama gaay maa ngi dem te ñëw su ma ñëwee mu gën fay neex maa ngi dem te ñëw maa ngi dem te ñëw su ma ñëwee mu gën fay neex Magi đem thuê nhau Magi đem tê nhau Mà nhau em gần phê nè Ờ Magi đem tê nhau Ai nhau hít đi Ông bà có nhau hít Ông bà có nhau hít đi Ai lên cao mẹ te di tontu question yi yam ben affaire bu may ah um ah ilaay am mbokk ñëwiti ah ay bii bay daal waa ah ok ok ok ñu def ñaan bokk ñu def ñaan bismillah tey fu bes tak lay génn waaw non njaay dëgg njaay dëgg waaja la tey fu bees tàkk laay génn tay kii coow lu bees wax gu beex affaire gu bees fu bees tàkk gars yi kay maak ñoom bismillah dañ ko doxal rek ay kay moom Abdou Sakour Fall jekk ca ndigal tey jekkal ku jekk ku ndigal ci barke ki ndigal Cheikh Ibrahima Fall ñi sàkko ci mu ndigal ci la benn sikki sàkk nag waaye ci doolu Abdou Sakour fal gaa ngi fal gaa ngi fal gaa ngi fal gaa ngi yàlla nañ ci doole falu saa rek baatin kollu koddaay koddal aha na koy dal na koy dal doole na koy dal doole poos koddaay koddal aha na koy dal koddaay koddal aha na koy dal koddaay koddal aha na koy dal doo koddaay koddal aha na koy dal doole poos doolee ndigg mën a yëngal te bañ a yëng te bañ a yàcc bañ a rek batin kollu koddaay koddal aha na koy dal doolee poos doolee ndigg mën a yëngal te bañ a yëng te bañ a yàcc bañ a yesar sar sar le ci mbooleem lëfi lew yëpp yàlla bu suñ bañ a yesar sar sar le ci mbooleem lëfi lew yëpp bañ a yesar sar sar ci mbooleem lëfi lew yëpp ñee sar sar sar la ci mbooleem lëfi lew yëpp yàlla bu suñ dara ne lew ci liggéey sëriñ bi gudd fan ak wér ak wér leeg wër sëg yàlla nañ yeex a wër suñuy sëg yàlla nañ am sët sëtaat sëtaat soog di dëgg nday wuji yàlla barki Mamadou Sa sëtaat sëtaat soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho jégg soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho jégg soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho soog di dëgg ndey wuji yàlla barki Mamadou Sakho soog di dëgg nday wuj yàlla barki ma Sakho soog di dëgg nday wuj yàlla taat soog di dëgg nday wuj yàlla taat soog di dëgg nday wuj yàlla barki di mu ndigal ci lawul benn sikki sàkk nag waaye ci doolu Abdou Sakour fal gaa ngi fal gaa ngi fal gaa ngi fal gaa ngi yàlla nañ ci doole falu saa rek baatin kollu koddaay koddal aha dëgg mën a yëngal te na koy dal doolee pos doolee ndigg mën a yeungal te bañ a yëng te bañ a te bañ a sar sar la ci mbooleem lëfi lew yeb yalla bu suñu darne lew ci liggey serign bi gudd fan ak wër ak falgangi wërsëg yalla nañ yeexa wër gi fal nañ ci falu sa rek baatin ci la ben sikki sak nak Abdou fal gaa ngi fal gaa fal nañ ci falu sa rek baatin kollu koddaay koddal aha na koy dal doolee pos doolee ndigg mën yang yeungal te bañ a yëng te bañ a bañ sar sar fal gaa nañ ci defalu saa rek baatin ah, koll koddaay koddal ah. aha na koy dal doolee poos doolee ndigg mën yëngal te bañ a yëng te bañ a yàcc te bañ a yesar sar sar la ci mbooleem lëfi lew yëpp yàlla bu suñ dara ne lew ci liggéey sëriñ bi ah, gudd fan ak wér ak wérleeg wër sëg yàlla nañ yeex a wër suñuy sëg yàlla nañ am sët sëtaat sëtaat soog di dëgg nday wuj yàlla ba gudd fan ak wér ak wérleeg wër sëg yàlla nañ yeex a wër suñuy sëg yàlla nañ am sët sëtaat sëtaat soog di dëgg nday sëg yàlla nañ am sët sëtaat sëtaat soog di dëgg nday wuji yàlla barki Mamadou Sakho am sët sëtaat sëtaat soog di dëgg nday wuji yàlla barki Mamadou Sakho am sët sëtaat sëtaat soog di dëgg nday wuji yàlla barki Mamadou ci loolu benn sikki sàkk nag waaye doolu Abdou Sakour Fall falgaa ngi falgaa ngi falgaa ngi falgaa ngi yàlla nañ ci doole falu saa rek batin koll ko day aha na koy dal doole poos doole ndig yàcc bañ ñay sar sar-sar la ci mbooleem lëfi lew yeb yalla bu suñu darne lew ci liggey serigne bi gudd fan ak wër ak wérleeg wërsëg yalla nañ yéxa wër suñu sekk yalla nañ am sekk setat setat soog di dëgg nday muju yalla barke Mamadou Sakho jekk ci ndigal tay jekkal ku jekku ci ndigal ci barke ki ndigal Cheikh ibrahim Fall ñi sakku ci ndigal ci la ben sikki sàkk nag waaye Abdou Sakour Fall fal gaa ngi fal gaa ngi fal gaa ngi fal gaa ngi yàlla nañ ci doole falu saa rek ba c'est le même nag moom moom lii rek lay def la ba tey da lëfi fan la seetlu leen gis ngeen bi mooy bu mu njëkk génnee mooy lëf la yaa ngi comprendre xool leen ko gis ngeen nu mu mel ñuul ñaaw xoolal karaw gi yaa ngi karaw gi karaw gi naaj gi dóor na ko pendant trois cent et quelques jours moo ngi changé couleur yaa ngi instant gii nii c'était la tête d'un vrai madialiste temps yi nii moo ngi ratissé lii ñu ñëpp jaana si lii mooy bopp madialiste naaj bi di la door ngay ñàkk xorom si xam nga di kii di wow ngay génn gis nga kii jamono yu muy dóor marto la voilà gars yi di dégg muy lëfal ba muy siw le ba mu siwee ba gaa yi déggal lëfal bi xoolal léegi ba mu saawaay ba ko sangee ba mu set xool leen ko xoolal karaw gi xaw naa tane léegi saawaay am na ay verre xoolal teint bi sa way leg amna yere yu njaxas na sol na kurus ki nangam nak domu mbake mbake ki kuko xol xamni ko si ñom lo bok gaay nañ ko def nañ ko si elam xam nga mu nekk kat sen and kat xorom bi gaay sang nañ ko acca un futur masare léegi mu commencé tok si tatou bashi commencé aussi commencé parce que ni ngay commencé da ngay deug fit raconter merde wax ay affaire tek ay ki ni xolal si señ bi wala wax gaay yu dooleel la dolé mo ngi ni mooy ni xoolal kii si ñoom la bokk un futur xalif wala un futur cheikh wala dàngam sa ça va être son nouveau bëkk néeg aide de camp ñoom ñaa ñuy ànd mu koy bégal xam nga muy mën a sourire muy ma kii le clown du sëñ wala mu koy may xaalis taalibe di ko jox muy solu jox ko sang na ko ok léegi tey mu fental ko nangam comme que sëñ bi caga la sëñ bi ay affaire kooy la bëgg batin koll koddaay koddal aha na koy dal doole poos doolee ndigg mën a yëngal te bañ na yëng ngi fal gaa ngi fal gaa ngi yàlla nañ ci doolee falu saarek batin yaa dégg nga comme que sëñ bi yooyoo koy daaneel xoolal ba muy wax ay koddal ay kii xoolal kanamu sëñ bi koll koddaay koddal aha na koy dal doolee poos doolee ndigg mën a yëngal te bañ a yëng te bañ a yàcc te bañ a yasar sar-sar la ci mbooleem lëfi lew yëpp yàlla bu suñ dara lew ci liggéey sëriñ bi gudd fan ak wér ak wérleeg wër sëg yàlla nañ yeex a wër suñuy sëg yàlla nañ am sët sëtaat sëtaat soog di dëgg nday wuj yàlla barki Mamadou Saaf jekk ca ndigal tey jekkal ku jekk xoolal sëñ bi ko mu waye man grawul instant di bomé dama tukh yamba ba réer ngeen réeral ma mais jamono ji ma ngi baye yamba gi di ñew di kii de man ak baye nakar ma ngi kay baye moom wax dolek fa dolek. waaw ma ngi kay tanda nyimom, ngi koy ak doole ak doole waaw waaw mais comme ala tanda ñi mom comme ni ko waxee rek suñu ma naré xass mom bama rap ma ni que yomb na kay la nu dem bax yi waaw nee ngeen ma bi na len billahi si laa nekk di gaawantu de balaa doom di màgg di ma si fekk mais bëgguma leen bàyyee gannaaw parce que man bis bu ma changé ngeen samay am di jaam bis bu ngeen ñëwee kër ga di ma seet wala nangam te ngeen ñëw xeeñ ay xetu boon wala ngay ñëw kii sama doom commencé naa ma waaye papa luy xeeñ fii il faudra que je l'explique lu ñëpp leen bàyyee ndoo du <laughs> ñëpp leen bàyyee ndoo quoi <laughs> yaay comprendre y a pas de problème man nee naa leen ba son lu ngeen bëgg-bëgg naa mais quant andil moo tontu yi su ngeen ma andilee tontu yi rek ma jël su gal ma andilee tontu ma jël Moussa Baye li am baawee ki nag waaw ok d'accord gol bëgg da man dal baagi gor gor baagi len leen fa yalla wu quoi baagi ñu ma ngi lay naan alcorane ki dem defaru ji lu tax bëggoo leen ngeen nu dem nu ñëpp nu bàyyi ndo kaa nu dem ba nu ba bàyyi leen fen bàyyi leen sàcc jaamu len yalla yéenam sani nday ak sani si loolu la len di wo su ko defee nu def nonu ba si benen euh, waxtaan beneen live beneen vidéo suba incha allah nu ñëwaat toog di xaar réponse questions yi comme ni mu koy waxee rek ma andi leen ana eh Moussa ana boni nii moy boni. mooy boo ana boni nii moy boni. Ba boo nii baa xoogoo déedéet baa naanogoo déedéet baa gisogoo déedéet eh ah Ba il. yow Moussa ana boni. nii yow ana boni. nii yow ana boni. nii yow boni. boo kara ana nani. yow eh ana nani. yow kara ana nani. yow eh nani. Ba mandegoo déedéet baa sooy naan di nga mandi déedéet eh ah Nani. Wa moy loolu de. ñun kenn duñu stress am leen jàmm waay que Dieu vous ñëpp di leen jégaluwaat encore naa leen gars yi wala mooy loolu quoi maa leen di jégaluwaat encore ñi ñëpp ñu nga xam ne que laan naa seen i mës naan nag paa yeeg yi paa mère tanta tonton kii ki nangam ah taay maa leen di jégalu taay affaire yi tàng na de taay affaire yi dafa tàng quoi moo tax mu demee nii da ngeen may rek ah affaire yi taay gars yi taay saay taay seen booy dafa tàngale de tay gars yi ko langal bu wet wet wet weet wet wet wet wet ne duñ ko tontu c'est les aléas du combat nag c'est les aléas direct et tout de la vie quoi c'est comme ça mais comme nu ngi koy waxee rek ñoo ngi ñaan si yéen ñaan di sàkku si yéen ñaan dinaa leen encore ngeen jéggal nu si temps yi nii sa petite euh, vulgarité bu xaw a am xadar bu fi xaw a génn tàng yu fi xaw a am c'est parce que temps yi dafa mette gaay gaay yi nee neen woo waaw weewoo duñu tontu que sa ñàkk jom bi si ay saaga leen koy def ay sos ay affaire de kii te man nee naa leen kaay lu dem baaxi nu ñëw yërëm suñu yaay nu yërëm tamit liggéeyu yónente gi lépp sedd nu oyof nu kii mais gars yi nee neen daal bu ma ko fi waxee xam nga bu ma ko fi waxee xam nga naa ko tëj naa ko noppi moo tax daal yenn yenn kilifa yeeg yenn mama yeeg yenn gars yeeg papa yeeg xam nga am di jàmm yeeg xam nga mag ñeeg xam nga gars yi di seetaan te ngeen xam ni que wax dëgg fa su ngeen sañoon yenn waxee du ngeen ko dégg lépp tegu si benn cadre boo xam ne mooy loolu mais comme nu ma koy waxee rek xeex bee yombul xeex bee xaw a asaaloo xel bee xeex bee xaw a jaxasoo quoi gars yi kenn du comprendre kaña yi da ngay dégg ay ceddo murit si biir kenn xamul ay ceddo amul julliti tout est mélangé toujours pour faire ay diversion moo taxit daal instant gi souvent tamit foog ñu fippu foog nu fippu de foog nu fippu gars yi nag c'est pas parce que nee neen bàyyi neen saaga rek ñëw nii def comédie gars yi bëgg noo toog suñu bopp moo tax souvent tamit xam nga mooy loolu foog nu daal di defanteeg gars yi kii nii ñëw rek mais tout c'est dans le bon esprit aussi parce que ay sénégalais la ñoo bokk Sénégal après lépp jant bi su soobee moom ba teg nii ñëpp bi ñoo ko bokk waaw après lépp su demee ba tegu encore Sénégal gi ñoo ko bokk donc lépp lu ñuy wax si Sénégal jëm donc maa ngi leen di jégaluwaat encore yenn yenn kilifa yi yenn mag ñee xam nga waaw ñu xam ni que ñoo ñuy safoo di safoo combat bi di safoo lu ñuy def lépp si jëmm yonente gee xam nga yàlla sunu borom donc yéen mënuñu dara lu dul naan leen daal xam nga yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay seen xool yal na leen yàlla sàmm sàmmaale seen i njaboot bàyyi leen fi ngeen dund dund dund dund dund dund dund ba ràpp ba fekkee seen i seen i jëriñu sëti sëtaat xam nga mën a tàppe mais yenn sëtaat yi nag moom bu leen ko yoon moom soo fekkee sa troisième génération wu sët moom doom musiba la waaw ñaari génération yi doy na nu tàppante nu dem bàyyi la nu dund xam nga yàlla neen fi dund am waaw ñun nag jeunes yi nag nekk fii di wax tamit di tëb yàlla nanu yàlla soppi nu nekk ay mag yu am ñam xam nga def nu ay mag euh, yu xam ne ni que yu yu muus te am ñam euh, yu am ambition am pas-pas yenn gaay yi nii wëlbatiku fini di wax ye ye neena len man Camara ken du détourner sama affaire neena len depuis hier avant-hier ngeen commencé sen tactique pour me détourner sen way Ibou Fall ñëw na kamikaze wu pour jël wax gi ci ci noddam pour me tourner wax gi ma bàyyi wax gi tek ko ci du mom du ko oh, jël nangam di tourner bëgg pour ma jël sama live def ko mu nek live wu oh, defante ak tontonté taluma loolu woo léegi yóbbu ngeen ko si benen wax moy ah ana boni ana boni musa Moussa yàgg toog fii di live nan len damay tukh dama doon naan dama doon jaay yàmba dugg naa kaso defna naa defna def defna nii def naa kat ma gay yi nee il a fallu que je fasse un action combat parce que rek lépp je pensais à ce petit con que toujours me met dans ces choses mais pour gars yi wax gi ko si benen gam moy loolu mais wax gi ba léegi léegi buuse wul changé wul soppeewul santeeku mooy lan lépp fa yàlla ak yonent gi waaw tuxkatu kii nangam la ah tuxkatu yàmbaa buy ngeen di wax di ko vilipande di yóbbu fu nekk jàpp leen ni que kat nangul na ni que day tux yàmbaa te moo ngi si yoonu baax moo ngi xool nu muy defaroo moo ngi nekk si jéem a defaroo doon boole woon na si naan tamit daan na ko jaay tëdd na si kaso bàyyi na jaay moytu na kaso gi.

tu es léger jàmm am na fa de ma leen di woon ne leen kat gis naa jàmm fenn kaay leen jàmm am na fi te laaju nu la dara c'est gratuit laaju nu la sas laaju nu la addiya laaju nu la dara c'est gratuit ma leen di nàndal ndi ko gis naa fu la mën a yóbbu àjjana gratuit te du la laaj dara daane rek nga jaamu ko su ma gisee bon coup ma yëgal leen su dee gisoo leen pourquoi vous êtes fâché quoi ngeen bugg a mer ngeen bëgg a dugg si ay kii ni nangam na leen yàlla jàppale quoi hein na leen yàlla jàppale donc gars yi peace love nu def noonu ba si beneen live beneen waxtaan beneen vidéo en attendant def nan nan lañ koy defee coco snap. Marichou chou magal validé.